ma tibbee sama xol sa jëm bi tëdd yooyu baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jaar baax xalifatu am tarixatul muridiya cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Bassir ñu yàlla sa borom yàggal ko fi lool te man dëgg wér. ba mit bi mu am ngir liggéeyal cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yàlla mottali ko ci barke yonent bi. noonu la ko ñaanale bu baax a baax sëñ Cheikh Jëmb Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima faal moom it mu yàgg fi lool te ànd ak wér yàgg sax ci ndigalu Cheikhul Xadim maa ngi ndokkeel ñëpp di tub baax ci retard bi ñu war a démarrer vingt trois heures et demi waaye lépp rek ci liggéey bi la ak safar gi ba tax ñu ñëw ba heure bi waaye tey daañu waxtaanee Cheikh Ibrahima Fall ci wàll ànd gu am solo tarkaal la waaye ma ànd ceeg sëriñ Cheikh Ndaw lay lan di ndaw bu ne tekk nga naw ko ci xam-xam bi bu waxee nga naw ko ci bu ne tekk nga naw ko ci yar bi bu waxee nga naw ko ci xam xam-xam bi waaye laataa loolu maam làmp mu ngi fi dañu koy bàyyi mu ubbi ak xasida yi ak wala sikkar si baatu laa ilaaha illallah bi nga xam ne Cheikh Ibrahima Fall nu mu ko neexee rek ñu doog a dugg ci waxtaan bi incha allah wala bisimilah. la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. ذهب la buur إلا الله لا إله إلا الله شرفا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بري الله لا إله إلا الله بري الله لا إله illallah la ilaha illallah moom serafal la ilaha illallah ci yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha bur yàlla laa ilaaha illallah yàlla laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah yàlla laa ilaaha illallah surfaan laa ilaaha illallah ñu ngi ñaan faal dellu ñaan yaram yàlla ñaan yépp nangoo Serafal la ilaha illallah boo déggee baat boobu nga xam ni baat boobu nga xam ni mooy baat bi gën ci baat yi baat boobu nga xam ni ci la góor yàlla yi rawee ci baat boobu nag ci la yàlla def Cheikh Rafal ni mu ko def. Mhm. waaye baat boobu nag boo ko déggee moom rek ngay dégg ñu ne laa ilaha illallah rek ci faal Cheikh Rafal rek la ko yàlla may tubaarkàlla ba tax na sëñ làmp ne bëbbeelu neex na lool lool lool damay bàyyi sëñ Cheikh Ndaw lay lan mu daal di nuyoo ñu doog a dugg ci waxtaan bi te daañu waxtaanee Cheikh Rafal ci beneen wàll. waaw waaw maanaam dañu dañuy dañuy wëlbati mbir mi. Mhm. que maanaam bàyyi faal. Mhm. waaw nekkul ni solu sagar rek. boo xoolee te ñi partout ñëpp dañoo sañ si civilisé lool te dinaa ñëw ci kanam li ma ci gën a neex mooy Baye Fall yi may invité bi ñuy ñëw tettalu ma leen woowuñu ma loolu ma faaw ma ñëw ci ndax maanaam wane que ni Baye Fall weesu na domaine bi ko gars yi teg te mhm. Cheikh maa ngi lay nuyu àddinaa nga doon xaar ñëpp ngi lay xaar dañu xaw a tardé bàyyi nga ñi nga xam ne ngi la bàyyi xel ci leeral ti macha allah jërëjëf eh, suñu Ousseynou xam daan wa sukuran mhm. li sayxinaa wa wasilatinaa mhm. wa kulliyatinaa hunaa wahanaa barkeb borom Touba mi dog suñ digganteeg jéng yi ak jahannam mhm. wa ahmaduhu ala baabihi wa baabina fiihi mhm. xurwatina maam Cheikh Ibrahima Fall aji aji wa ala abil muridina wa qaiduhum a Cheikh Ibrahima Fall muhjila muhjili sabil lak yaasi wallan Fall wa tardaan baabil muridina maa Cheikh Ibra Fall manil masaaya jamaa mhm. ba jobi teeñu teeñ ba yanu yan ba mel ni njàmmal ba wuñ ñu mbooti bàmba ah, sëñ Ousmane ñu ngi lay siyaare bu baax ndeysaan di la bu tedd bii di siyaare bu wér a wér di baax maam làmp mhm. di siyaare mboolem gur yàlla yi waaye siyaare bi yëpp dañ ciy jiital euh, sëriñ Mountakha mhm. saa borom guddal fanam wéral ko kàttanal mhm. ko ba naa li nga xam ne su mën na ko yëpp mu waagale ko noonu lañ koy ñaanal sëriñ ni Fall Modou Mbenda Mm-hmm. xalifa maam Cheikh Fall di ko ñaanal sunu buntu kër maam muy sëriñ Amdi Ndaw am na bàyyi Cheikh Ndaw mm-hmm. saa borom yàggal ko ak mboolem njaboot gi yëpp rek suñu maan siyaar nañ la mm-hmm. bëgg nañ la it damay wax ne boo doon diir ma ne tey jam nga li tax mooy dangaa wooteel ndaanaan mm. koo xam ne ku jariñu ci borom tubaab moo la jariñ damay wax nag nit dana lekk jën woo xam ne xamul kan moo ko napp Cheikh Ibra li gars yi di wër ci borom Touba moo ko ubbi fi ne tukki bii ñu jëm mhm. muy bisu borom Touba bi mhm. Cheikh Ibra la te ca kanam danañ ko leeral mhm. nga woote ko it ci bis bu màgg muy talaata waaw kon yow moom dàkk nga surtout doguma la mais histoire bëgg naa nga ñëwal ma ci histoire u Serafal ak talaata waaw foofu laa bëgg émission bi ku ne xam ne danga waroon Touba heure fekk waaye maa sàkku ni nañ ko téye. di ko téye ba talaata. Mm-hmm. macha allah jërëjëf. moom laa bëgg a leeral nii. ngir mm-hmm. nga xam ne jam nga. Oh. te Cheikh Ibrahima danaa doom si ngeen may woo ma woo ci lu ko jar maa gën a gaaw melax du ma wuute. moom Cheikh Ibrahima moo tax ma ne kon fi ne nii dugal nga bii bu rëy. fii ci mm-hmm. leeral TV moom xaw ma gars yi nag waaye yow moom dugal nga moom. ndeysaan yaa baax. Cheikh Ibrahima. ak talaata. dañ koo gaafaloon. samedi ak talaata ak talaata. daawu ci def dara. damay indi taarixu tala talaata rek gaaw. indil ma talaata ak samdi dañ leen a gaafal. bis bi Sëñ Tuubaa ji gisee ci ci géej gi. Mhm. talaata ak samedi ñëw ci borom tubaa xam nga siñ tubaa lu ne daana ñëw ci moom. waaw ndax sawara ñëw na ci moom ne ko Mbàkke mu ne ko rafaati naa kuy dingal Cheikh Ibra Fall ak waa këram. Mhm. talaata ak samedi dafa ñëw ci ci Sëñ Tuubaa. Mhm. ne ko ñun kat Mbàkke sa tukki bi yëguñu ci suñu bopp. ndax ñaari bis yii duñ ci def daal muy talaata ak samedi dañoo ñoo gaafal sëñ tubaa daañ na kon talaata jël samedi jël naa ko kon sëñ tubaa moom mooy borom samedi moom tukkeem bi sax ci samedi la de yow ma sabti xoolal xarajtu yow ma sabti ah. rabian safar la njëkkoon a wàcc dem foofu baax xarajtu yow ma sabti saamine asar ci la dem li xidmatil muxtaari fi sëy safar bisub samedi la génnoon. Mhm. ngir liggéeyal ci kan. yonent bi mooy kiñ tànn. allahu akbar. daañ ne talaata kon demal ci Cheikh bi Fall yow. Hmm. maam Cheikh ñëw moom moom mu jël talaatoom daañ ne doom talaata samay talaata. Ah. bàyyi mbéykan xaan day nettal de. am ah. nag lu ma la wax moom mag ñi. preuve waaw. <laughs> sëñ Cheikh. bàyyi mbéykan xaan nee na maa fekkee. ca hmm. xuru Mbàkke maam Cheikh génn. daañ naa doom bis ni tey doom talaata samay talaata dañ na doom ku ci xëy xëppoccum ndox di nga gudd fan di nga am wërsëg ay talaata waaw moo tax ñuy dàkk Cheikh Ibra te nag nee na bu ngeen may dàkk deen ma dàkk ci talaata ah. kon talaata moom moo tax ñu naan talaatay Cheikh Ibra moo tax may la kon waxtaane Cheikh Ibra muy guddig Cheikh Ibra bii nga woote ci weeru safar mm. Mm. weer wii di weer wi nga xam ne Sëñ Tuubaa nee nag ci la yàlla di ubbee buntu cant yi mhm. fa taxta baaba sukkiri fii sëhri safar ah. tey bi nafsin duuna durrin aw safar allahu akbar kon weer yi bu ñëwee di ca waxtaane maam Cheikh la Fall mi nga xam ne moo wuññi gaa yi ci borom tubaa damay wax ne kenn mm. gisut borom Tuubaa déedéet Cheikh Ibra ko gis wallaay mu ko gis moo tax woykat bi ne ko yaa ngi ne màkk Bamba bàjjo faalo oh. yaa ngi ne xajj bamba ah. man nga xoole yaa xool ba gis dam mbàkke am nga doole wallaahi Cheikh Ibra moo gis borom Tuubaa moo tax Baye Moussa Ka ne bëri waa na ko toog nga di ko toog nga di ko xool mu di la xool boobu fekk na xooloo ko man mii maa ko xool allahu akbar Cheikh Ibra Fall moo gis borom tubaab moo tax ma ne mbindeef yi bu ñu bëggee jariñu mhm. ci ci borom Touba mhm. nañu waxtaani Cheikh Ibra mm. buñ ko waxtaanee rek gars yi jariñu te li waral tukki bi nag lii ñuy màggal tey Cheikh Ibra la te Sëñ mhm. bu kàddu gi ñëwaatee waaw danañ am luñ ci leeral. farkaal mi ngi noonu moom day day léegi rek da doon nuyoo. Uh-huh. gis nga ni mu nuyoowee indi na taarixu talaata bi nga xam ni moo ko fi tee boobu ba léegi mu waroon dem Touba. Uh-huh. ñu ngi jaar bax suñu mënu gisee. moom seen siraar taal nga xam ni moo coordonné mbir mi. Uh-huh. Eh, ci télé yu bëri waaye moo jàpp ci mbir mi ba nga eh, nangul ñu ko. tegaloo ñu benn condition. sëñ Lamp mi ñu ngi koy jaar bax moom mi nga xam ne mi fi ñëw ci ndigalu sëñ Moussa Kalamoula mi nga xam ne moo waroon toog fii waaye ne ma nag du ma waaye ki may indi dana mel ni maa ñëw wallaay ni nga bi nga ubbee daal mel na ni macha allah ñu lay jaar baax baax. Euh, euh, ni kenn démb. ñëwoon nañ ci Cheikh ak jotaayu xam-xam. maa ngi leen di jaar baax ñoo fi jógee di waxtaanee seen becco. ñëw nañ ci Siyaara Fall naka la ñëw ci Cheikhul Khadim. juddu geeg yooyu. ma bëggoon daal ñëw ci deuxième partie maanaam ci Siyaara Fall. digganteem ak Cheikhul ma ñëw. ci Cheikh Fall. Mhm. digganteem ak tubaab bi. Mhm. laataa ñëw Cheikh mhm. taxawaayam ci màggal gi. laataa ñëw Cheikh Fall. ak jëf. Mhm. laataa maa ñëw ci diggante doom Cheikh Rafaal yi. Mhm. ak doomi Cheikh Mouhadim yi. ak doomi Touba yi jërëjëf suñu Ousmane. Mhm. yow fi ne nii maanaam da pànk. Eh, ah, ah, ah. xam nga pànk mooy maanaam bi Ibra dana doom jonge ak dëggal ñooy am. jonge ak dëggal fii nit dafa war a jonge jigéen ñi nag ñoo yàq jonge rek. waaw waaye jonge nit ki doo ko war a def. Hmm. ci laajam. waaw maanaam yow laaj yi nga indi nii dafa tëj fi jotaay bi. ngir ku bëgg a xam Cheikh Ibra Fall rek laaj yi mën na ci sukkandiku xam nga maam Cheikh ne laa doom jonge ak dëggal ñoo yam hmm. jonge ñaari baat képp la xam fu lu baax nekk hmm. suuf ko ba man faa yegg neex kàddu bañ doyal la ca eh, moo tax kon dangaa ubbi bunt bi kon fi Ousmane nanga ko mooy wolof dane kuy rëbb ku ne kuy fëxalay mbokkam wallaay dëgg la te ginaar bu toppee kuy taxani ah. daa gisul kuy bojj wallaay dëgg la eh, maam Cheikh ne laa ah, doom mag bu dencee ci ruqam ay mbiram ah. nee na doom bu fa déggee yuuxu doom kenn war ko faa njëkk. wallaahi dëgg la. kon fii kon tey suñu mbirum Cheikh Ibra daañu fi indi. Mm-hmm. Cheikh Ibra euh, li nga xam ne moom la jàngale ci borom tubaa moom euh, fan laay njëkkee ci yi. ci relation Cheikhou Khadim ak Cheikh Ibra. ak Cheikh Ibra loolu nag seen relation du fii fële la woon. asal asal ca kaw. foofu nag damaa xamoon ba xam gars ñuy dégg. xam nañ fi ñuy waxee am déet moo tax ma bëgg a wàcc niveau bi rek ñu waxtaane fi ñu mën a déggee waaw ndax nit kat boo ko bëggee yëkkati ca kaw te moom munta dem ca kaw danga koy sonal kon nañ waxtaane digganteem ak borom tubaa ci zahir hmm. waaye ca kaw moom xa xamante woon nañ waaw ndax Cheikh Ibra nettali wax ne hmm. sëñ tubaa ba may jógee ca kaw hmm. dañoo waxante woon nee na sëñ tubaa dana moo ni may wëre daal mooy fu ma nekk am na leer gu fay nekk ca kaw ca kaw su ma ñëwee ci àdduna ni may wëre bërëb bu ma nekk am na leer gu ma fay def képp koo xam ne taxoon naa ak man danaa def ci moom leer goo xam ne boo nee ko jàkk da nga xam ne kii ci man la bàyyi ko Sëñ Tuubaa ne ko Ibra Faal mu ne ko Faal mu ne ko sama doom yu góor ñi ak ñu jigéen ñi ñëpp ay wali yu kaamil la ñuy doon loolu nag man képp koy am ci kaw suuf mm-hmm. xam nga léegi nag Cheikh Ibrahima faal kon boole yooyu kon di ko wër. Mhm. moo tax ba demee ca Mbàkke Kajoor foofu duñ fa taxaw. ah dañuy jàll. Mhm. ba demee ca Mbàkke Kajoor keroog ba mu gisee Sëñ Maxtaar Touré ak Cheikh Yanamba Gueye lii may wax nag Baye Cheikh Wade Ndiaye ko nettal de. Mhm. doomi Sëñ Mor Ndiaye Sala man lu ma la wax damay indi dalil teg mu leer. Sëñ Mor Ndiaye Sala ci mag ñi si nekkoon ak Cheikh Ibrahima Fall la nekkoon. bay Baye waat Wade Ndiaye nee na Sëñ Yaaram Mbaye ko nettali. Ah. Sëñ Yaaram mbay ci keppaaru Cheikh Ibrahima Fall la woon ah doom keroog ba ma jugee tay ba Dakar. Ah. nekk fa di liggéeyal sama sëriñ booba. di wër borom Touba. damay taxañu waxtaan wi. waaw ngir buñ ci tas buñ ko tasee rek. temps di dana dem sa du jeex wallaay dëgg la. nee na Cheikh Ibra Fall nee na keroog ca pëjum néeg ba laa nekk di takk am néeg. nee na ma gis ca penk ba sëñ Maxtaar Touré ak sëriñ Adama Guèye ñu jugee Mbàcke Kajoor jëm si tay ba Dakar. Mhm. maam Cheikh nee na may nii xool di gis ci ñoom leer ya ma borom Tuubaa waxoon ca ësal ne ma ku ànd ak man am na leer gu may def ci yow. maam Cheikh daañu ne ah doom ah doom ñee day buñ doon jigéen doom mu ne nañ doom ba wan waaw waxi Cheikh Ibrahima nag neexut a xam. ah doom ñee day buñ doon jigéen a doom mu ne sëy nañ doom ba wan lor. ndax doom ku ànd ak dara ak ku ànd ak dara doom yomb nañu xàmmee. Hmm. maam Cheikh ne na gannaaw jigéen mooy nekk ak borom këram. Hmm. bokk ko gis cëb kollam xam ne dara topp na ko sàkkantuma ak leeru yàlla doom ñeedee ñi ngi gis maa ngi gis ci ñoom leeru borom Tuubaa gi ma waxante loolu mu ngi ci ësa maam Cheikh ne na ma cëpp ne leen fu ngeen jóge ñu ne Ahmadou Bamb mu ne dëpp leen jaar ma ànd ak yéen maam Cheikh ne na ma ànd ak ñoom jëm ci borom tubaa hmm. ñii nee na ñetti fan la ñëw Mbàcc Kajoor ñii nee na ñeenti fan la ñëw Mbàcc Kajoor mm-hmm. waaye daal lu ca man di am moom ñaari yooyu moom benn la ci moom ñett wala ñeent ñett wala ñeent maam Cheikh jóge ba Dakar suñ Maxtaar Touré ak suñ yaare ma gay seq ñu jëm Mbàcc waaye nag suñu loolu moo yéeme lu yéeme waaw Baye Cheikh Wade Ndiaye nag mooy nettali moom te nee na ci làmmiñ ñu sëñ Yaaram Mbay sëñ Yaaram Mbay ne Cheikh Ibra ko wax loolu wér na Baye Baye Cheikh euh, Baye Cheikh Wade Ndiaye. moo nettali. moo nettali ne sëñ Yaaram mbay nee na ko. te sëñ Yaaram Mbaye woon. Cheikh Ibra ko yar moo ko nettali loolu ko. waaw. preuve de. ne ah doom Yaaram mbay mu ne ko faal mu ne keroog ba ma jógee tey ba Dakar doom jëm kër sëñ Bamba. Hmm. sëñ Maxtaar Touré seq ma ak sëñ Yaaram ma doom tànk bu ma seqi doom kën tàkk ci aras. ah doom Yaaram Mbaye mu ko faal mu ne doom malayka yaa ngay feetu. ah doom malayka yaa ngay feetu. nee na ma ne ah doom lu tax mu ne doom gis gëma war a gis siñ bàmb doom te gisaguma ko doom loolu la malayka yi doom di feetu allahu akbar maam Cheikh ne na maa ngi dégg malayka yi naan ay waay ndax yàlla ay waay ndax yàlla ay ndax yàlla kii nga xam ne bu gisee kay gindi jàmm yi jàmm yi gindeeku hmm. ndake kon kenn gindi koo gudde waaw Cheikh Ibrahima ñëw ubbi bunt su ma la dogut mhm. bi seerafal dañu Cheikhul Khadim waaw samp nañu yoonu murit ba mu at at juróom-ñaari weer mu soog a ñëw ñu xam Cheikhul Khadim ba tey. waaw xam nga gis nga lii rek misaal la ci. fi nii borom Tuubaa koo ko booleel foto ku dut Cheikh Ibra Fall su yàggee wër rek dañ la waa sëñ bi kii mooy kan du tuutal de mais xam. dëgg la dëgg la mais ñoom ñaar foo gis kee gis ko kee. waaw xam nga li tax njëkku fa. njëkk fa de fekk na fa ab lim. ab lim bu takku. Baye Cheikh Baye Cheikh Ndiaye daa bàyyi ne damaa nekk ci bunt bi. Cheikh Ibra nekk ci biir. Hmm. nee na nee na may woyantu xam nga mañ rek dañ daan cokkaa Cheikh Ibra di ko wax loo nee na ma naan ji faal ba muy door dañ ne woon du sori maam Cheikh daañu daa ah doom Cheikh Ndiaye ma ne ko faal mu ne ña ko waxoon kàcc nañ te. allahu akbar. la ilaha illallah. nee na Baye Cheikh nee na maa ngi ci budd bi de. Mhm. nee na nee mi ngi ci biir nee na ma ne waaye nag faal ña ne woon du sori ñëpp seeni taw jébbal nañ ma ah ndokk Cheikh Ndiaye. ndokk Cheikh Ndiaye. Baye Cheikh nee na ma bëgg yokk nag samay waxi bopp ne ko mm. faal yaa ko njëkkite yaa koy mujj mu ne ma déet nag bul ma wax loolu waxul mm. njëkkuma fa kër sëñ Bamba waaye lu fa baax maag fa njëkki wallaay dëgg lu fa dugg si biir Mbàkke Kajoor maam Cheikh nee na doom malayka ya ngay taal ay këno doom ca di bëgg di feetu waaw di feetu maam Cheikh nee ba jëm Mbàkke Kajoor leeri sëñ Bamba yi def lu mel ni ay faari oto nee na température dënn di ma niital yoon bi. naa ko nii nga war a jaar. waaw naa ko nii nga war a jaar. tapis rouge bi. tapis rouge yow yaa xam moo moo tax ma ne sa waay xam nga nii moom moo xam li may wax nii maam Cheikh nee na kon tapis rouge lañ ma lalal ma jëm kër borom Touba. di gindi ji. maam Cheikh nee na keroog bi may dugg si biir Mbacke Kajoor nag Mbacke Kajoor gépp nag di leer moom. mu ñetti fan. mu waxanteeg gis nga fii waxtaanee ku xam li may wax da nga xam ne damay taxañ ndax xam naa ne su ma taxawee fenn rek temps bi dana dem te wallaay dëgg la maam Cheikh moo mu nekk biir Mbàkke Kajoor waxante ak sëriñ bi xam nga ñetti fan la ñëw wala wala ñeent hmm. gis nga saa bu sëriñ bi eh, ana ndaw li loo bëgg mu ne ko bëgg yekk ci yàlla hmm. Sëriñ Tuubaa su ma xamoon fu yàlla nekk doo fekk ah. maam Cheikh ne ko damaa topp tànk bi yàlla ba mu dugg sa biir kër gi soo ma ko génnelee rek ma génn ndax yàlla lay wër xam nga nag suñu Ousmane. waaw ku am 27 ans. Hmm. jàkkaarloo ku am 30 ans naan ko damaa bëgg yëkk ci yàlla loolu doy na waar de. rawante bëriwul. waaw rawante bëriwul ñetti at la mais ba muy ñëw ci Cheikh ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. waaw jàng na alxuraan. tafsir na. xoola dane doom bi may ñëw ci sëñ Bamba jàng naa ba boole ñeenti araf. ban ak ban. damay wax ne nag ñetti yomb na waaye benn bee jafe. ban ak ban kaffa ak tamma. kaffa ak tamma waaw. kafa ah. keer la faa ah. tamma taa la miim maam si ne na doom keef gi kaang la ah. faa gi fóore la taa tomb gi tafsir naa alxuraan miim gi musumaa mooy yàlla allahu akbar musumaa mooy yàlla te muy dëgg nag moo jafe waaw xam nga tafsir moom ak kaang ku jàng mën koo doon waaye musumaa mooy yàlla te muy dëgg Cheikh Ibra ko wax xam nga mu wax ne doom guddi gu jot laataa may ñëw ci borom Tuubaa guddi gu jot daanaa naafile téeméer rakk moom Cheikh Ibrahima Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall. ah doom yaaram mbay mu ne ko faal mu ne doom benn tànk la daan taxawe ah doom yaaram mbay mu ne ko faal mu ne doom mu ne doom ñaari rakk yu nekk doom ak kaamil lay jàng nee na bu taxawee nee na benn tànk lay taxawee jàng xaaju kaamil ba siggee siggiwaat nee na jàng benn xaaju kaamil. Mm, ci naafila bi. ci ci naafila waaye doom xam nga doom lan moo tax ma ba ko. ñu ne ko faal ah. déedéet. surtout loolu. waaw waaye suñu may la waakee na ko naa duggal que ni. waaw si après kon bi mu ñëw ci Cheikhul kon la la bàyyi la arrêté julli waaw xam nga Cheikh Ibra fi ne nii loolu ñu bëri dañ koy laaj question yi fii liñ koy tontu ak a ñàkk julli Cheikh Ibra gi. Ah. ñu bëri dañuy yaakaar ne borom moo ko teggil déedéet. Ah. mbir mi ci yàlla la jóge naa leeral foofu kon. lu soog a jàll doo ko jàll ci waxtaan. waaw su ma a leeral. xam nga man lii ma la ciy nettali nag. man sama maam mi jur sama baay. Cheikh Ibra ko leewu tudde ko boppam. muy Baye Cheikh Ndaw daanaka ba Cheikh Ibra Fall. moo doonoon seen maxa si nga xam ne da daan wër di faj aajo. ñun ñi may diglu xam nañ ko moo nettali wax ne. maa bës Cheikh Ibra Fall guddi. mu ne ah doom Cheikh Ndaw ma ko Fall mu ne bu ma kenn wax loolu waxul. ñëw bu mu julli bu mu war. Ah. Cheikh Ibrahima wax. Cheikh wax de. bàyyi Cheikh Ndao nettal ne Cheikh Ibrahima wax néew ma kenn bu mu julli bu mu woor waaye Cheikh ndaw mu ne ko faal mu ne ko yàllaa ma woo moo wuyu ko loolu lu ci waay man ah loolu day rek. waaw yàllaa ma woo moo wuyu ko mu ne ma Ibra ma ne ko faal mu ne ma ameel ma a bërëb jullee ko yàgg ko àndal su defee du ma leen fay. ah loolu de ah dégg nga de leer na. ne ko Ibra Faal mu ah. ne ko Faal mu ne ko bangal sa baaraam nee na mu bank mu ne ko liggéeyee gën jàng ah. joxee gën julli maanoo gën koor sax leen ca loola ah, ok ma ngi ci de kon euh, kon mbir mi. Hmm. du ci borom tubaa ñu bëri dañu yaakaar ne borom tubaa am dangay ngay dégg sax ñiy ñiy wax dii nga dañ naan borom tubaa ko seetaan hmm. sëñ tubaa daa ñëw xam ne kii dogalu bi yàlla la mu ànd ci ak moom xam nga moo tax may la sañ-sañ bi hmm. ci yàlla la jóge te sëñ tubaa nee na man yàlla goreel na ma lan moo tax ñu mën a nangoo goreelu keneen bañ a nangoo goreelu Cheikh Ibra Fall ah. imaam Saharaani yee Kamaal téeréem ba Bàmba lay misaal. Ah. giñ nañu mooy abori jàll xut bi woon ci xarnu bi. kooku sëtub yonent bi la woon. te danaan lekk bëccëgu weeru koor te ku masaana hmm. diingat al ko. Hmm. bañ jawee ne ko waaye yow lan moo tax. doo wóor mooy leen ana maxtuuxun ah taxani rabbi yàlla mi leen sant ngeen jaam ko man moom a goreel man. te ñu mën a nangu yàlla goreel moom mais nangu yàlla goro Cheikh fa Cheikh Ibra moo tax maam Cheikh Ndao doon nit ku ñuul ay gunóor lañ. waaw. ah doom gunóor bu jiweeg taal dugg ca. wallaahi doom war naa leen suñ bamba ba tey maam nit ñi ñun nit ku ñuul dañoo xaw a am complexe ci ci suñ bopp. waaw na ñoo gëm keneen la muy wax mais ñun ci suñ biir ñoo gëmante ñun. maanaam sax doguma la maanaam ci fi nga jii nii. Mhm. maa ngi mën nañoo rek fawandoo. Mhm. mën naa toppi keneen koo xam ni. Mhm. wallaahi yaa ko ëpp baatin fop fuuf nangul ko ko mais yow mi xam ne ñoo fawandoo sax. dëgg la man ba ci man mii sax exemple. dëgg la ñu may àndal booy lañ dëgg la xam nga lan moo tax maam Cheikh ne na ku bàyyiwut ah. bi ndeyam ci kër gi fi la eh, bi ndeyam di ñëw ci kër gi fi la ma fekk ah. ak kii bi may am dara maa ngi fi doo dem fenn <laughs> nit ñi dañoo soxor nangul nañ keneen waaye nanguluñ ku nekk ñun ci suñu réew mi te borom tubaab mii sa borom hmm. moo ñu ko cëppilal ngir mu war ñoo jariñ mais gars yi dañ koo wan ginnaaw te nag li gën a garaaw ci gars yi mooy boo waxee araab képp ñu gëm la waaw te arab làkk la képp dong boo waxee wolof tey ñu weddi la xam nga tax mooy wax la xam nga. fi ne nii moom mii. Uh-huh. si si làmp mii tey. Uh-huh. mën na ne jëlee nañ ci hymne nangam mu ne nangam ak nangam ñu nettali na nangam ak nangam nga gëm uh-huh. tey ma ñëw daañu ne Baye Cheikh Wade Ndiaye nee na Cheikh Ibra faal nee na ñu ne ah day wax rek. bu bu Baye Cheikh Wade Ndiaye la ñuy. te pourtant nettali nett la mais da koo wax ci arab ma wax ko ci wolof. xam nga mais ñu ñun nit ku ñuul dañoo xamul suñu bopp. dëgg la xam nga. feneen ni nit kese bu lay xibaar ab ñaankat wala ko mën a ñaan bu bëggee nga gëm ko danaa la déggul olof yaakaar na ni ñàkk dégg wolof xam-xam la mm-hmm. xam nga moo tax Cheikh Rafa loolu la doon dind ñun ci ñun ngir complexe ñu dind ko ci suñu biir buy làkk olof sax olof bi du ko leeral da koy caf waaw dañ naan la ah kii kooku ni mu garaawee déggul wolof ngir yaakaar ne ñàkk dégg wolof xam-xam la mm-hmm. fii nii ñun ku faatu lañ jàpp ne moo baax dëgg la waaye booy dund tey nii man ngaa fees dell duñ la lijjanti mais boo faatoo ñu ne yii ak a baaxoon dañoo xeeb suñu bopp léegi loolu na Cheikh Ibrahima Fall nag bi dindi ci jaam ñi maa ngi génn sax. fi nga newoon euh, thème bi ma joxoon mais dafa mat nga leeral li tarkal la. waaw ñu bëri ba ci man mii ak ñëw si xam nañ que ni fi mbir mi jóge ca ëzël la. ca ëzël la loolu Cheikh Xadim néew ci laataa euh, kay tarkal. te inni abdun wala yi jaada bel iq. suñ Tuubaa nee na yàlla goreel na ma. wallaay goreel na ko. léegi sax moom bu ko neexoon goreel googu mënu koo jox Cheikh Ibrahima. an kay. ah kay moo tax nag kon mbir mi dafa am ay sew sew leer na nañ moo tax bàmba ji loo ci xamul rek noppil daa gën a wóor te bàyyi gaa yi ñu doxal gannaaw ëllëg yomal xeyaam bu ñuy dugg na doo leen dugal kay yow bàyyi leen rek ah te ñaa nañ te ñi ñu topp li ñu ah. wan dañ koo gëm wallaahi dañu ko wan ñu gis ko ñu wax ñu ko ñu dégg wallaahi xam nga fii tukkeem bii rek hmm. doy na sëkk képp borom Tuubaa bii rek ah. ah ijan roju ila xawmi saadatana ah. wal takfina yawma jami xalqi niiraana ah. likun bikum sarmadan wa jaal masiri yasa jawfal fara lil wara mislal maarayni maanaam borom tubaa dafa yaatal mbir yi fi ne nii waaye ku bëggee a ñu nag ñëwal ndax suñ tubaa daa woote ku màggali bisub tukkeem ba hmm. jihaad nga aj nga omra am nga yool ba wajaal masiri hmm. fawqa jën wa jihaad hmm. fil ajri wal yumni wa fii kulli rasaat loolu waxi borom tubaa la kon ñun li ñu borom tubaa defal dañ ko war a xam léegi nag nuñ koy xamee mooy faw ñu diir waaj kuy waaj maam Cheikh dana a doom sëñ Bàmba bu doonub teena man Ibra Fall maay rabu teen wa allahu akbar waaw Ibra Fall ci yoon maam Cheikh dana a doom sëñ Bàmba bu doon dëkk la doom man Ibra Fall maay yoon te xoolal sëñ bi ni bëggee woon borom Touba. moom Cheikh Ibrahima Fall. ñàkkoon sago ci borom Touba. cofeel gi cofeel gi. fi ne nii Cheikh Ibrahima fu mu toll ak bëgg moo ko fa yeggale daa bëggoon borom Touba ba amu ci sago moom dem na ba bis Cheikh Moussa bis dem na ci kër gi sëñ tubaa di ko liggéeyloo rek. mu ñëw maam Cheikh ne ko ah doom mënu Moussa foo demoon. mu ne ko man kat damaa demoon sama kër bàyyi sëñ Bamba mu ma doon liggéey liggéeyaloo maam Cheikh ne ah doom man de su ma xamoon ne su ma juree doom bu may suuf. di liggéeyal sama sëriñ jar na bañ a jur doom. allahu akbar. tollaay war amul ci bëgg gi. dégg nga loolu ak bëgg la te nag suñu sëynu ak bëgg moo mën a jariñ nit de. fi nit dong booy labat as jonga ma bëggam mooy tax man caa jot de. ak bëgg nag bu dëkkul ni ma taat labatee toarkaal <laughs> waaw ah kon nit ki ak bëggam bu wéree rek mën naa am lu ne. mu ne ko bu ma leeroon dinaa jurub doom. su ma xamoon ne su ma juree doom. mu may suufu mu may suufu di liggéeyal sama sëriñ jar na bañ a jur doom. mu foofu la ko mbir yi tolloon. foofu la ko teg ma. foofu laay duggee ak yow. Mhm. fan la Cheikh Ibra Fall. Mhm. fekk yoonu murit ak fan la ko yóbbu. waaw xam nga. maanaam bi muy ñëw. wax na tuuti kon mu dem bi muy ñëw. mën mhm. naa toog Cheikh Khadim ñu ngi leen di waxtaan. waaw gars yi ko doon defee. waaw mën nga koo nuyu son mbaxana. mën nga koo nuyu son fekkoon nga ñuy jàng fa maam. ah moom mooy murit di wut pexe. Hmm. xam nga Baye Moussa Ka dañu koo leer la. Baye Moussa Ka moom it xam nga kooku kenn du moom moo tax murit yi war nañ koy bàyyi xel. xamal nañu lu bari ci seex Ibra Fall. wallaahi déglul dane hmm. déglul ma wax la waxi Cheikh Ibra Fall. ci hmm. diggam ak Cheikh Bamba mooy borom xaal. Hmm. moo ne ma ruuga gam na Cheikh Bamba lu ma junni at. wóor na yàlla buur ba. allahu akbar. ajaabani rahmaanu. xablal xalqi. wallaahi. safina alfa bil xaqi. waaw ah, kon boo boo mënee déglee sax dangay mën a dégg li ah. diglul ma wax la waxi sayqi Ibra Faal ci diggam ak Seex Bamba mooy boroom xaal moo ne ma ruuga gëm na sayqi Bamba lu ma junniy at wur na yàlla buur ba te booba sàkk guñ suñ maam aadama sàkkantumaak di sàkki doomi aadama dañ sayxi bamba muy déggub laa ñaar ba leer nga jollee asamaaw la jaar moo tax ba sey sayxi bamba dëkk njaareem leeram nga jolli bawol gépp di ko yëg maam seex nee na Baye Moussa Ka ne ma Baye Moussa Ka nee na moo ne ma njëkk a jébul di hmm. loolu la indi maa njëkk jébbalu di daan joxe addiya maa ko xewal kii jamono. Hmm. keroog la Bamba woolu Cheikh Adama géey wax ko ci man ay lépp muy wolof yu rëy. kon Cheikh Ibra Fall moo indi système bi ñu mën a jariñoo ci borom tubaa maanaam gars yi xamoon nañ ko mais mën a jariñu bi moo leen toog dañoo yaakaar ne woon borom Touba am njàng képp a nekk ca moom. dañuy ñëw jàng. waaw dem fekk na Cheikh Ibra Fall nee na kii ma yàlla tegtal kii ku ko liggéeyal mucc ci nax naxi àdduna ak alaaxira. ndax mu jël àdduna la di ko liggéeyal rek. di ko liggéeyal képp. te xam nga bi bi mu ñëwee jaayanteek moom sax Sëñ Tuubaa jox na ko si jaada mm-hmm. jox na ko kii ne ko jullee mu ne ko Mbàkke lii taxu maa jug ko tax a jug te nag suñu Ousmane c'est suñu Ousseynou Ousmane Ousmane Ousmane <laughs> bu sama nijaay la mais euh, waaw xam nga xam nga fii yow mën naa laa wax tuuti rek ci xam mm. nga comprendre li ku ko dàq julli kenn dañoo wax ne foo teg sa jaar sa tànk ci suuf ah. jaan matt la iblis teg na fa jëbam ba. foo teg sa tànk. jaan màtt la iblis teg na fa jëbam ba. ñun de fii de xanaa. ah xanaa fii kon jaar na. kon kon kay mooy fépp iblis julli defi kon. moo tax maam Cheikh na doom julli bu doon tax a yegg ci yàlla xeebu ñu julli nag am na ñoom dañ lay dégg yaakaar ne da nga koy ah, déedéet ñun dañ koo fonk de waaw waaw ñun suñ mun taxaa dañuy jox ndigal ñu ñuy tabax ay jàkk waaw tabax ay daara alxuraan mm-hmm. kon kooku Cheikh Rafaal nee na ah doom yéen a may xeeb doom waaye doom diine suma bi am problème ndax diine lu mu am maa ko jox. Iblis bii lañ ci li nga nekk am na solo de. te moom nitu safara la te foo teg sa tànk. jaan matul la Iblis sujjuut na fa jëbam ba. man de géejawaay rajo diggante géejawaay ba Oussefar diggante jaxaay ba. <laughs> léegi nag léegi diglu Cheikh Ibrahima maam Cheikh ne doom julli bu doon tax a yegg ca yàlla. Ah. doom Iblis ndar képp yàlla. wallaahi ndar képp yàlla. dégg nga wax ji. waaw nee na julli bu doon tax a yegg ca yàlla. iblis day ndar kepp yàlla moom xam nga wa isxul naa li mala isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa ah. abba wastakbara wa kaana minal kafirin wallahi iblis dañ ne ko sujjootalal maam aadama mu bañ xëtt ndigal fii ne ndigal a tax ñu dàq ko ñàkk jëfe ndigal ak rëy moo tax sa borom dàq ko di ko tëkku diglul waaye nag xam nga ca xuloo ba ba muy xuloog yàlla xam nga maa ngi wax ji nañ ma gars yi dégg nag non fi nga ne baax na de iblis karoog ba mu jàkkaarloog sa borom ba wax ja tàngee xam nga fan la iblis mujje hmm. fekk te borom tuwaa kenn du moom gii mu gi gi ñu suñ tubaa indil muy safar gii lu jar a fonk la hmm. ba may jógee ci yàlla ba mu xuloog moom bay dem dana ko nag danaa fexe nag ba sa jaam yi xam nga yow suñu Ousmane waaw tey su ma doon xul xuloo ak yow bu ba di jeex damay bëgg a ah. dàkk lu la ne lu la métti rek ma wax la ko te ah, dem maanaam dan ngeen muub daal day da lay tuuse ngir bëgg laa yëgal sa xam nga mhm. danga ko waaye nag danaa fexe ba sa jaam ñi duñ la sant hmm. maa ngi dem de waaye danaa fexe ba sa jaam ñi la sant wala tajidu aksarum ah. shakirin ah misaal baa ngi ko danaa fexe ba sa jaam ñi duñ la sant kon cant lu am solo la de Sëñ Tuubaa ñëw war a cant Sëñ Tuubaa ne fataxta baaba sukri fii sëhri safar yàlla ubbil buntu cant yi ci biir weeru safar foo forum bu. premier ah. safar ba réseau safar. ñu ngi tey bi nafsin doona durin aw safar. allahu ah. asaduha loolu wax yonent bi la de. xadisu xudusi yàlla yàlla la jóge asukuru ak cant ibadatu ak jaamu yàlla la. Hmm. min al ibadati bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne nag akramuha wa asaduha moo gën a tedd waaye nag moo gën a jafe nag mhm. suñ tubaa nag daaje woote ak cant nag ci bés bi maa ngi génn sax ci ma nekkoon ci ñeex waaw da ciy baax des fois nga bugg fenn leeral ko waaw ñëwaat ci débat bi ñëwaat ci débat bi maanaam nii ñu ko bëgg a waxtaane dañoo hmm. bëgg gars yi ñuy dégg ñu xam ne ñun duñu ay jaahil yoo xam ne dañuy dox nii rek déedéet waaw baa kër Cheikh Ibra boo fa demee da nga fay fekk ñu tafsir ak alxuraan mokkal ko demal Mbàkke ah suñ fàllu mbar suñu saa mbar yàlla na sama yàgg leen fi alxuraan dañ koy durus wallaahi ah? daayira Jësbul Murid muy sëti maam si Raaya Fall yi daara ji ñu taxawal barki démb moo Njaay kes lañ dem seenu siyaar maa ngi siyaar yi suñ Modou Fall mhm. jëwriñ ja ah dem fa daara ji gars yi dañuy mokkal alxuraan di ko bind di ko tari kon na gars yi xam ne Baay Faal yi duñu ay jaahil de ñu jeex tàkk lañ waaye nag dañoo jeex dañoo roy Cheikh Ibra Fall ndax bi muy ñëw dégg nga li ma wax daa jeexal téere yi waaw mhm. ah, ndax nee woon naa doom ah, ah doom bi may ñëw ci Sëñ Bàmba doom jàngoon naa waaye doom ba ma ñëwee doom ca kanam boroom Tuubaa doom laa fàtte lépp. lépp bàyyi téere yeeg. bàyyi bàyyi lépp maam seex Cheikh Ndaar doom jamono ji sëñ Bàmba nekk doom kenn du ca wane xam-xam. déglu loolu jamono ji sëñ Bàmba nekk. jamono ji sëñ Bàmba nekk. Hmm. maam Cheikh neen doom kenn du ca wane xam-xam doom. moo tax mu jël téere yeeg teg. xam nga te gars yi fii ne xam-xam la ñuy puukareew ak di ko kii Cheikh Ibrahima amoon na xam-xam de. Jazbul dem ca. waaw Jazbul Murid Cheikh Ibrahima ay juróom fukk ak ñaari kii yoo xam bu ci nekk. mën nga ko waxtaanee at te du jeex. xoolal dama ne la ga ga arabisants yi laa wax de jës bul murit moo tëj seen bopp arab yi Cheikh di wax lañ xamut Cheikh Ibrahima raw gars yi jàng na ba jeexal téere yi waaye dana daa doom jamono ju sëñ Bamba nekk doom kenn du ca wane xam-xam doom. dëgg si ah doom sëñ doom day defar di doom may defar di denc. dañ doom man Cheikh Ibra Fall lenn lu sëñ Bamba def ma koy def du am doom defandoog sëñ Bamba kat mooy def ko nawle te sëñ Bamba doom du nawle. te suñu Ousseynou Cheikh Ibra bu ko neexoon. Ah. bu ko neexoon day dem falu ji boo. wallaahi asmaan. dameel ci ay maam war ngaa amee jaam. nga jaay ko jox daam sag pal dafay des. sa gaa yi lay raam. Hmm. ñoo gën nag ak jaam ku daan amee jaam tey jox na la ak nos. wallaahi dëgg la. maam Abdoulaye Xaar. Hmm. mbaaxaan ma daan gaar. Ah. yaa leen joxoon taar ak pal bu dul rës. nga xool Cheikh Ibra maamam yi de de. ku riis ay maam la. wallaay ci judd maanaam moom bu muy Cheikh Khadim riis la ci juddu. xoolal riis ci xam-xam. dammel dammel ci la jóor la sant Diop waaye Fall daan sant. te ñuy fàtte pétalu su kaabu waaw. Oh. xoola Amadou Fall Roqe yaa ko meññ. Euh. Roqe Ndiaye Seyer euh. Maram Ma euh. Ndiaye <laughs> de. a riis gars yi si ñu la am. wallaay ci juddu ah. la de riis si juddu riis si xam-xam. bàyyi lépp topp Cheikhul Khadim. côté boobu jàll na mais jëlal geneen côté. Cheikh daa fees fépp beneen côté bal la ci. Damel Mandesit. Ah. ñi may diglu nañ dem xam ne xa gëstu ci kan mooy Damel Mandesit Fall. bii de secret la woon de xanaa. waaw sëñ sëñ seex la yàlla ma jàmm la <laughs> Ndaw. Damel Mandesit Fall. Ah. moom meññ yore njëbbi Fall. waaw konteel moom meññ yore njëbbi Fall ak. Biraan Njëbbi Fall. ak Ma Fall Biraan. ak Amar Fall Biraan. ak Maysa Bigi Kumba Fall. ak Ahmadou Lamine Fall. ak Amar laay laay la laa. ñëwaatal. Amar Fall Saari Ndiaye. waaw moo meññ moo meññ Birane Roqaya. ak Ahmadou Roqaya ak Sonandak Fall. waay waay moom Oumy Fall Roqaya meññ Cheikh Ibra ak maam Saliou. waay tamit kii da koo gën a doon dammeer. kenn xam kii kenn gënu koo riis waaye da koo teg nele. xam ne yax bu rëy amul solo. waaw li am solo mooy ñëw ne groupe ci kanam borom Tuubaa di ko liggéeyal. moo tax yàlla fay ko la mu koy fay. nangus njaam te dis gor. maam Cheikh ne doom boo ko defee doom. loo gis baax na loo dégg neex na jëfe ko te waxe ko te mu jëm kanam mu ne du laay saa def ba maam lamp demal. laa <laughs> la ilaha illallah fal si xibra fal abori jaal la ilaha illallah ci yàlla la ilaha illallah yaaram la ilaha illallah fal si xibra fal abori jaal la ilaha illallah ilaha illa la fal faale ci xibra fal abori jalla la illa la ci yalla la illa illa la la ilaha illa eh, la fal faale ci xibra fal abori jalla la illa la Cheikh Ibra Fall

la noxoo ma wallaay noxoo ma waaw góor dégg nga maanaam bat bi ci xol lay dugg di dugg ci xol bi di jaar fu ne toirkal la ah mbokk yi ñu leen di jaar baax di ndokkeel ñëpp ñu ñu bàyyi xel mun ngeen ubbil ma link bi ma waxtaan gars yi waxtaan ak sëñ sëñ Cheikh toirkal la xam naa ne bëgg nañu 88 la 628 02 02 88 628 02 02 laa nga ne publicité mhm. il faut que nga tënkal ma ci ci lu gàtt rek nga ne publicité ñëwaat mhm. Cheikh Ibrahima Fall xam naa du neex a tënk nag mhm. waaw Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. ak tubaab bi. waaw surtout bi si tubaab tukkiwee. Mhm. Seera Fall. Mhm. dox na dox wu am solo. waaw tubaab bi. jërëjëf suñu Ousmane. jërëjëf maam làmp ci njàng mi dugg na ci xol ma macha allah. waaw yàlla suñ tubaab barkeel barke maam Cheikh la. waaw xam nga. xam nga suñ Basiiru. Mbàkke. Euh, mi nanu baaxil xaddim leeral nañu ko. Mhm. nee nañu gannaaw dogalub yàlla. Mhm. li delloosiwaat sëriñ bi. Mhm. fii gannaaw dogalub yàlla ci loxoy Cheikh Ibra Fall la jaare ah, bi. gannaaw dogalub yàlla. sëñ Bassirou Mbacke moom borom Touba. nee na waaw. sëñ Bassirou moom it maanaam sëñ Bassirou dañoo dimbali ci seex yi Fall. ngir xamal ko. waaw dégg mu ne. Sëñ Basiru mi ngi wax ci mu neen bàyyil xadim ne ku ma doy nettali na ma hmm, ku ma doy nettali nettali na ma ba yàgg sax mu ne sëriñam ba hmm. moom borom tubaa sax nettaliwaat na ma ko lii muy bëgg a nettali nii daañ na nee na yéem ak Cheikh rek gi day nee na na gënee yéem borom tubaa mooy bis dafa ànd ak moom ci Mbàkke Kajoor hmm. nee na borom tubaa di jàpp nee na maam Cheikh di dékk nu njàppen mi nee na di ko naan ak di ko diwoo Sëñ Basiru nee na loolu borom tubaa mas na ma koy nettali nee na lu ko gën yéem ci Cheikh Ibra Fall la kon li delloo si waat fii sëriñ bi. Mhm. Cheikh Ibra ko liggéey. wan wàll waaw. waaye suñu Ousmane li yóbbu sëriñ bi it. Mhm. ci euh, Cheikh Ibra génn ci de ndax dañ ko koo taxaloon xam nga. moom Cheikh Ibra waaw. Mhm. bi tubaab bi ñëwee fekk sëriñ bi yóbbu. waaw. ñenn ci mag ñi dañ ne ah. Cheikh Ibra léegi jaay nga ko nag sunu waa ji jaay nga ko naan ko yaa fi nekk kenn nga ba tubaab bi yóbbu ko Ibra Fall demal ñibbi nag. Ah. nee na lii lépp ak yow xam nga dégg naa saa di jàng saa ma naan ko Fall lii lépp ak yow. aw xas la woon de. aw xas la woon tagg daa mujjee doon aw tàgg te xamuñu ni que ni tukki bi yàlla ko programme ci ësël waaw waaye faaw mu am sabab ci seer fa la ko yàlla jaar waaw dogal bu am day lëkkaloo ki ah sëñ mu si tooñ nga ma de man lii mosuma koo xam xam nga maanaam Cheikh Ibra dañ na ko yow yaa jey sunu waa ji nan ko yawa yawa léegi nag tubaab bi jël nañ ko yóbbu demal ñibbi nag demal ñibbi faal li lépp ak yawa nee naa fa mu toro ñaan ko faal li lépp ak yawa jaay nga ko yóbbu nañ ko Ibra Fall demal ñibbi nag. Hmm. maam Cheikh ne na ma muñ rek. Hmm. nekk ndar. xam li mu xam rek. waaw di campagne Cheikh Ibra politique na ca ndar dinaa ci ñëw. waaye nag bokkut ak politique bii gars yi def de. Ah. waaw gars yi dañoo yàq politique. waaye hmm. Cheikh Ibra moom daan politique. xam nga léegi nag bi Cheikh Ibra Fall fexee nag ba sëñ bi ñëw. ña nga doon sikkar naan ko Fall lépp ak yow kenn daw ba yuuxu ne ko Fall lépp ak yow. Ah. maam Cheikh ne ah ndeke kon aw xas dana mujjee doon aw tàkk. waaw ah, xam nga bu la lépp ak yow aw xas la woon waaye tey ku ko wax tey da ngaa sikar ba fànn lépp ak yow wallaay wallaay wallaay léegi 1888 ci Daaru Salaam euh, la Cheikh Ibra Fall dem Ndar bi ko suñ Tuubaa yeewee fukk fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu ca Daaru Salaam woo ko ne ko Ibra Fall yaa ma yëkkati Ibra Fall yaa tax ba ñëpp ñëw xam may kan mm-hmm. ne ko Ibra Fall toogal ca kaw siyem surtout jaxate nee na loolu maa ngi koy dégg booba maa ngi ci biti di jàng alxuraan mm-hmm. nee na borom tubaa nee na si suñ tubaa nee na maam seex nee na toog gi ca kaw moom gënalu ko mm-hmm. waaye suñ tubaa moo ko forcé ne ko toogal ci kaw ni ko Ibra Fall gërëm naa la yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la xam nga nag suñu seenu mm-hmm. maam Cheikh Ibra daa bëri ngërëm fi ne nii boo gisee waxtaan sax may bëgg di xaw a kii mooy damay gis bundoom moo ca taxawee rek temps bi day dem te question bi du jeex maam Cheikh dafa bëri gërëm suñ Tuubaa mm. yàgg na ko wóote ko gërëm maam Cheikh nekk ci biir daara ji bëggut a dem mu yàlla gërëm na la yonent bi gërëm bis woo na ko ne ko Ibra Fall gërëm naa la maam Cheikh génn daañ laa ah, suñ Bàmba day xam naa dafa xam ne mm. mbaaxoom gi xëjoowut ak sama mbon gi xam nga eh, du nangu du mës a nangu bis Cheikh Ibra Fall tawat na xam nga nag Cheikh Ibra nañ xam ne dalaan tawat moom Cheikh Ibrahima tawat da ko daan def de mais kattan la am ak njom gi mm-hmm. dana ko am ah, Mbàkke danaa la jaay sama lépp ba mu def sama ngor ngor gi laa lay jëfandikoo waaw ngor gi. ngor ay tax li may diggee rek yow dama ci dellu ginnaaw. fii nii gaa yi jaay nañ seen ngor bu yàgg. wallaahi yàgg na xam nga. la xoolal bis Cheikh Ibra dafa tawat. ba sonn lool sëñ bi. lu garaaw laay nettali mm-hmm, mm-hmm. nga xam ne kii fu mu yegg ngorom ak jomam moo ko fa yeggale wallaahi. ak bañ a doon dara nag fii koo gis daa bëgg a doon dara. te Cheikh Ibra ñëw moom eh, nekk koo xam dafa war a riis bëggut a doon dara moom bëggut a yëlif dara boo gisee waa këram rek fii dañ leen a jamono dañ leen a uh, doye dal fi ne nii yaakaar nañ ne Baye Fall yi moom ay dof lañ moom li tax mooy dañ leen a ndax ñoom xëccooguñ cër bëgguñu addi dara addina ta sa borom nee na ëllëg ah. alaaxira gërë ñu jëm xam nga ah. ñoo ko moom ñi nga xam ne bëgguñu yëkkati ko de hmm. te duñ yàq nag tilka daaru laaxira naj'aluhaa lilladina laa yuriduna uluwwan fil ardi wala fasad wax yàlla la de moo tax ma ne kon Cheikh Ibra maa ngi kii de. Cheikh Ibra foofu baax na de. waaw jàll ma ko noo ko defee noonu. waaw maanaam Cheikh Ibra dafa bëggutoon a doon dara moom. Mhm. bis dafa tawat ba sonn moom see Ibra. Mhm. Sëriñ Tuubaa yëg tawat bi daal di woolu ndaw. Mhm. daal di daañ na ko boo demee neel Cheikh Ibra Fall lépp luy metti ci jëmmam ci man la bàyyi ko. ndax liggéey ma rek moo ko teg waaye su ngeen demee nee ko yàlla gërëm na ko yonent bi gërëm na ko mën mii gërëm naa ko keroog bi ndaw li ñëwee ci buntu kër Cheikh Ibra Fall bi ñu nee ko ndawal borom Tuubaa day mooy yegg si maam sax fi mu fi mu soona woon dafa jóg daa daa ñaa ah, doom bisimilaay jàmm ah, daa doom jàmm doom lu seen maam wax daa ah, doom bisimilaay ku fa masan daa doom bisimilaay jàmm lu seen maam wax daa doom lu seen maam wax nee mu ne ko sëriñ bi dey nee na lépp luy metti ci yow ci moom la bàyyi ko liggéeyal ko rek moo ko teg waaye Ibra Fall sëñ Bamba nee na gërëm na la yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la maam sax keroog dana bërit ndalu ne ko waaye nag sëñ Bamba nee na nga wutal ko benn sondeel sum taal tey ci guddi gi ngir man cee yeggale tagg yi muy tag yonent bi waaye nag nee na gërëm na la ci tawat bi waaw ci tawat ji de booba Cheikh Ibrahima ngi sonn maam Cheikh daañu la bërit daañu laa doom su ngeen demee nee leen sëñ Bamba ah doom damaa bëgg a nax xanaa Um, moom wàccagul ci tag yonent bi man may wàcc di ko liggéeyal. Ah. dégg nga loolu. Cheikh Rafal ci tagg yonent bi. man may wàcc. man may wàcc man te di ko liggéey te moom ma njëkk a xëy kat. Ah. ma ko njëkk a wàcc. Ah. wallaay dëgg la nga. keroog Cheikh Rafal dañoo bërit daal di jug fas ndigg la dugg ci biir dëkk bi nee na wut ay gaali sondel yenu ko ñëw feddliwaat ak jaayantam ci tawat ji. Allahu akbar. xam nga ki kii xam Cheikhul Khadim. bis Sëriñ Tuubaa woolu na ko ne ko Ibra Fall bis ñi tey lépp loo tëgg sa bët yaa ko moom xam nga tey loolu ku kuñ ko waxoon. ay mbay de sa grand boobu laa njëkk na. ah waaw kay. Ah, xool xool xool yéreeg sëñ lamp. <laughs> waaw loolu kuñ ko waxoon moom da ngaa am ku leen di yeeg montre yeeg yooyu. <laughs> loolu kuñ ko waxoon ku dul Cheikh Ibrahima Fall da nga ne sa may ma tuuti ma xalaat. waaw ndax li ma bëgg bëri na danga may may tuuti moom ma xool na waaye déglu la ko Cheikh bi wax moo ko rek mu ko tontu. dana ko mbàkke war a ngel ma samay mbari bët ba du ma gisati lenn lu deew. allahu akbar ah waaw <laughs> bis ni tey lépp loo gisati sa bët yaa ko moom mu ne ko were ngel ma samay bët. du ma gis leneen lu dul ba du ma gisati kenn ku dul yow. suñ Tuubaa ko Ibra Faal bis ni tey mën nañ laa defal teen boo xam ne dañ la ciy duyal ay leer ba mu fees del ta nga mën ñoo bàyyi da ko doon nattu. Mm-hmm. waaye diglul Cheikh Ibra ah, ca ngor ak. Mm. ah Mbàkke teen day dee takku ne fi yow ndox mi du jeex. allahu akbar. dégg nga loolu. wallaahi. moo tax ma ne Cheikh Ibra lii mu jàngale mat naa waxtaane de. wallaahi mat naa waxtaane. dëgg la mat naa jàngale it. wallaay mat na ko. suñu am danaa ñëw ci eh, question bi. maa ngi tudd waaw kay tarkal la. Eh, xam nga xisa bu ma neex la. te day soññ ab murit. muy ban bëggam Cheikh Ibrahima Fall. muy ban suñu am amar am naar la woon. Hmm. nekk ci kër borom Touba waaye day tu tànk. Hmm. maa ngi maa ngi siyaare bu baax waa këram. Hmm. bi suñ Touba dana kookana mu ne ko man la imnu amar naar bi sa naar bi. mu ne ko demal wooli ma Ibra Fall suñu am na nee na nag ma bëgg. ñu ne ko suñu am na li tax nga bëgg mu ne damaa xam ne mag ñi fi ji fiir kër gi suñ tubaay yónni leen rek kale fi bàyyi oh. mu woo ma man di ndaw mu yónni ma ko nanaa bëgg hmm. ñaareel ba it xam naa ne ku dem ne Cheikh Ibra Fall kay wi suñ Bamba hmm. dana la neexal a neexal a neexal ba at moom mooma doo ca manqué doo ca raf moo tax mu bëgg nee nag ma samp sama xel man <laughs> wuti kër Cheikh nee na keroog maa ngi fekk maam Cheikh fi mu sóonu toog nee na ma ñëw ba cim nopp ne ko faal kaay wu sëñ Bamba nee na maam Cheikh keroog nii la def loxo yi keroog ne mag ngi neeñ basaa def nii rek yéeg na ma ca kaw néewtu fi nee na keroog nii lay def te sëñ Ousmane nee na lii lay def na doom yaaram mbay mu ne ko faal mu ne ah doom dégg naa turoo xam ne doom góor gu ko dégg war ngaa sam jàpp allahu akbar foofu la ko affaire yi dégg dégg nga loolu ah doom yaaram mbay dégg naa xam ne doom góor gu ko dégg war ngaa yeesal sam jàpp ah doom yaaram mbay mu ne Fall mu ne neexal leen ibnu oh am na ko xanaa suñu min nee na ñuy tàmbali nag nee na di ma jox xaalis bi nee ah. na ma xëpp yëre yi oh. maam Cheikh laaj satala bàyyi ma faal ñan mooy ci photo bu photo bi leeroon ma woon la ko waaw mooy tout tànk li taxaw te yor satala gi mhm. maam Cheikh fu ko ba suñ ma saara woole jéegu yu mu dox day jàpp moo tax mag mi daan ànd ak moom di yor satala gi bàyyi ma faal ñan anta toog hmm, preuve waaw <laughs> nee na mu ne ko ah doom jox ma satala na mu jàpp wallaay jàmbaar la nee na mu jàpp nee na maam Cheikh daal di waaxu de neexal nañu hymne mbooloo mi toog ci ginnaaw comme nii mooy photo bii Cees la ko photo 1918 ca baraagum ndànd ba mu ànd ak mag ñi mënoon naa la limal ñëpp waaye temps bi temps bi la wallaay xam nga nee na maam Cheikh daañu daa doom daa doom neexal leen hymne nee na ñu tàmbali neexal ma na kër kër ji bëri maam Cheikh gaa yi daaj si si si ñu topp ko mu jëm kër borom Tuubaa. waa jàngoor ay waay réseau waa jii moom mën naa neexal waaw naa neexal bàyyi ma Fall ñu anta toog ak nii. sëñ Modou sëñ Modou gisee ma ko. mën na ko na ko tarkal. sëñ Modou Lo nga ne. Mhm. sëñ Modou Lo ñu naan seex seef. moo nekk ca wetu càmmoñ nga te njool ne. Mhm. taw sëñ ma Mbay Lo la. mooy si sëñ Modou mhm. ki ko féete nii mooy bàyyi ma Fall ña nga anta toog. boo limee ba noppi ñu publicité. waaw waaw xam nga nee na boo daanee foofu waaw. nee na ñuy dox nee na ba yàgg nee na maam seex xol ba namal kayu suñu bam mu ne ah doom ana imnu ma ne ko faal mu ne ah doom imnu imnu nga ne lan. ma bamba mu ne ah doom yaaram mbay neexal leen imnu nee na ñu tàmbaliwaat. nee na maam seex laaja satala daal di jàppuwaat. allahu akbar na ñu koy neexal ba kër kër gi bëre maam seex jugaat wuti yoon wa. ne na suñu imnu nag nee na lañ ko jàll ci yére yi moo bari ba mbooloo maa ngi ko féete ca ginnaaw ne na ma nga ca ginnaaw moom nee na ñu dox ba yàgg maam sax daan ñaar doom ana ibnu ñu ne ko faal nag ibnu nga ca ginnaaw ndax kër kër jaaba mu ne aa ah, doom wooyu leen ko nee na ñu woo ko ba ci kanam maam ah, faal kaayu sëñ bamba mu ne aa ah, doom yaaram mbay mu ne faal mu ne doom dégg naa tur woo xam ne doom góor gu ko dégg daal di laa yasata la di jàppuwaat keroog ba Cheikh Ibra dugg ci kër borom Tuubaa danaa doom yaaram mbay mu ne ko faal mu ne doom kaayu sëñ bamba ci nopp Ibra Fall day njàpp tuut na ci sangu farataay ci waroon ndax bànneex bi muy def ci man benn bànneex ñëri laa ilaha illa kon moom ak bëgg moom kii jeexoon ci daa yem foofu kon nga dem te ñëw ko allahu akbar bëgg nag la bëgg gii raw na bëgg gi xees bëggoon laa bëgg gii daal c'est sañ sañ see xel nga gudd fan Ismaïla publicité fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa wa safar ay ca leen ñu dem Parcelles Assainies global textile dem seeti Assane Fall Assane Fall mii ne woon naa leen neexal leen ko dëkk ak moom ndax mu jox leen ci tissu yu baax yi Assane Fall mii moom mooy jaay tissu yu baax yi ca Parcelles Assainies unité 12 ci wetu Sénélec ba ñu ne brodé Lafaya Assane Fall la ko fii indi ñu ne brodé Pirxa Assane Fall brodé Marie Gueye Assane Fall jesner yu baax yu qualité supérieure yi laa wax demal seeti Assane Fall brodé cotonnade bazin riche bazin cotonnade jesner bazin contre jesner bi xew bazin Chérif Aïdara mooy bazin bu bees bi génn waaye it ñi mii til sablé ya til simple til découpage ba brocart pour hommes et femmes dentelle ya paillettes ya voile loo bëgg am na ko waaye soie pire foofu nga koy fekk wax cuub foofu nga koy fekk ba tey pour góor ñi wutal fil à fil yu baax yi fil à filu qualité yi fil à fil simple yi waaye nag pour jigéen ñi dañoo am ay drap yu baax a baax a baax a baax a baax ay dra de lit yoo xam ni macha allah am ay couvre lit yoo xam ni doo ko fekk fenn waaye it am nañu tamit ay couette couette moom beneen affaire la ci rideau pour salon rideau pour chambre à coucher du benn de bu ko jaawale de Assane Fall global textile ndaw leen seeti ko nekk fii ci Parcelles Assainies unité 12 ci wetu Sénélec bi Assane 78 193 35 35 day jaay gros ak demi gros cay Assane. ilaahi ma jug ngir teeru bis bi ma saf. bis ba yaayoo way ba jeex mooy màggalu go Tuuba. Rythme Couture di ab entreprise buy yëngu ci wàllub ñaw góor jigéen mag ndaw ay yëre yu baax ngir waajalee ko màggal Tuuba ji ni mel te rax dolli ay xale yu xarañ yoo xamante ne ciseau moo daal di damm seeni loxo. ñaw dong la ñuy def tey nag ànd ci qualité yoo xam ne kenn xamul li lan la rythme couture ñu ngi géejewaay en face garage BRT ci côté station bi am na beneen bu nekk marché Ndiarème ca géejewaay wetu forage gi ni mel boo ñu ci 76 901 24 84 rythme couture la marque du style. moom Serigne baa ngi mooy sunu mbégte nan ci taxaw teeru ko mbég gu njëkkoon mbég. ngir borom Touba. jërëjëf mbokk yi tarkal la ñu dugg nag ci ñaareelu pàcc waxtaan wi bëggoon naa ñu waxtaan ñu lu bari waaye xam naa dañ koy tënk rek bu nekk yor ko 2000 2000 xam naa du yomb daañu ñëw ci Cheikh Fall taxawaayam ci yoonu mu daanaka ñëw nga ci waaye taxawaayu Cheikh Fall ci màgg gi bëgg naa nga ñëw ci laataa loolu maa ngi ànd ak Assane Fall Global Textile nekk fii Parcelles yi en face Senelec bi nga xam ni fi mu ne dafa nekk en promo ci màggal gi tissu yomb yu mu daan jaayee deux mille mille la koy jaayee yu mu daan jaayee mille cent léegi sept cent cinquante la koy jaayee Assane Fall taalibe Cheikh Abdou Karim Mbacké borom Makaarimal Axlaaq mu ngi noonu yéen a gis numéro bi 78 193 35 35 wala 77 nekk fii Parcelles Assainies euh, di bëgg fàllu lool tarkaal nga xam ne boo demee place ba mu xel kafatu baa nga naan ba nopp mu xool tissu baax yi boo bëgg mu jaar njëg bi xéwal ñu koy ndokkeel bu baax a baax waaye maa jàmbaar ji nga xam ne moo di alaaji àlla sekk borom xitma couture xitma couture nag boo ko déggee xam ni ku am xitma la ci la muy ñaw nga xam ne nag moom instant yi fi mu ne daa raakaaju àlla day safar fi mu ne te buñ nee safar xam nga àlla day wàññi moo leen tàmbal promo màggal ba tax na tey jamono ji mu ngi ci euh, promotion 25 pour cent maanaam lépp lu daan jar 15000 francs àlla mu ngi koy jaaye léegi lu daan jar 20000 mu ngi koy jaayee 15000 lu daan jar 15000 mu ngi koy jaayee 10000 lu daan jar mu ngi koy jaayee 10000 francs ajjuma nag lay jeex kon na gars yi profité leen ci 77 209 06 49 Xetma Xetma Couture mi ngi nekk Mass Ndiarème en face Fora bi waaye mu ngi nekk place boutique baa ngi nekk fi nag prix promo bi nag mi ngi nekk en face BRT bi dana change total bi lu daan lu mu daan jaay rek wàññi ko 25 pour cent promo bi nag ajjuma la jeex kon nag tay ak suba ginnaaw suba profité leen ngeen dem ci Xetma Couture mu jaay leen boo wootee bu dee am na ku nekk nag bu ñu jël ko laataa loolu sañ làmp mu mayaat mu tuuti rek incha allah ñu daal euh, deux minutes rek ñu dugg duggaat ci deuxième partie bi ak ki nga xam ne moo di sëñ Cheikh Ndaw lay lan bu dee am na ku nekk nag jël ko incha sañ sañ làmp bisimilah waaw la ilaha illallah la ilaha Allah illallah la ilaha illallah jaaraama si xibra faal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jaaraama si xibra faal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jaaraama si xibra faal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jaaraama si xibra faal la ilaha illallah la ilaha illallah na ñëpp def nii ñu màggal si xibra faal la ilaha illallah la ilaha illallah Cheikh Ibra la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jaaraama Seex Ibra Faal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jaaraama Seex Ibra Faal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jaaraama Seex Ibra Faal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ku jàq moom ngay woo faal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jaaraama Seex Ibra Faal la ilaha illallah la ilaha illallah lay lay la la lay lay la la faal faal faal faale ndaa bay maameey na ñëpp def nii ñu magal maam Cheikh Ibrahima Fall la ilaha illa la faal la ilaha illa la la ilaha illa la faal la ilaha illa la la ilaha illa la faal la ilaha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 لا إله إلا الله إلا الله fal ñi réer fal de yàlla di bind njàng mu neex lool ba noppi nag boole dëggu tubaarkàlla yal na yàlla wéral baat bi ci barkeel tubaarkàlla mbokk yi 88 la 628 02 02 waaye Cheikh samay question daanaka sëñ Modou daanaka toogaay sëñ Modou Sala tooga taarikal la ci question yu bëri yoo xam ni joxoon nañu ko ngi ñu waxtaanee ko waaye mel ni temps beeku ma teewul mm-hmm. euh, taarikal la ak pédagogie bi ngay waxtaanee taarikal la day mm-hmm. mbëri yu leen xaas moom dama lay bàyyi daal nga clôturer sa waxtaan. Mhm. ñu doog a dugg daal ci warmay Touba warmay Touba nga xam ni. sëñ mhm. Abdou Lahad su ma jubul moo ko mhm. uh, indiwoon ci Touba sëñ Abdou Lahad daal ñu yeesal ko. dëgg la ànd ceeg xalifa bi daal de Baye Fall. macha ko liggéey ci Baye Fall yi ba clôturer waxtaan bi ci Cheikh Ibrahima Fall. loolu moo ci indi rek mu ne incha mm, allah. waaw kay macha allah jërëjëf. Mm. jërëjëf suñu làmp yàlla na baat bi wér. amiin maam Cheikh. waaw ah, xam nga ci biir question yi daf mel dangaa ngaa duggoon foo xam ne mm-hmm. dañ koo tëboon te lu mm-hmm. mat a leeral la mm-hmm. muy Cheikh bi ak Ndar ni mu sababe ñibbi si gi ma maa ngi doon junj politique bi Cheikh Ibra def Ndar waaw kon bi Ibra dafa dekk Ndar di politique ngir booba borom tubaa mi ngi gamoo waaye kenn xamut fu mu nekk ndax ban saar politique waaw politique bi ci lay ñëw nii politique ngir borom Touba ngir xam fi sangam bi nekk rek xam nga nag maanaam xam nga li wax ne zahir day am. ci zahir nii. waaye Sëñ Tuubaa ba Cheikh Ibra bi Sëñ Tuubaa dem karag bu mu taxawee ci buntu gaal bi hmm. nee na karag la ko Cheikh Ibra Fall ne ko Mbàkke maa gëm sag dem maa gëm sag dellu si kon ko xam ne ne dana ñëw waaye day def war téefam. xam nga jàngal nit ñi ne ab taalibe wut a toog nii rek ne yàcc. xam nga. donte xam nañ Cheikh Tuubaa dina ñëwaat. donte gëm nañ ne dana ñëwaat waaye faaw mu def. ay système am moo tax ba Basiru ne li delloo si waat sëriñ bi ci loxoy maam Cheikh la jàlle gannaaw bi dogalu bi yàlla jàlle hmm. xam nga Cheikh Ibra nekk ndar jaxasoog tubaab bi na dem ba ñenn ñi sax naan ko yow Cheikh Ibra tubaab bii nga xam ne moo yóbbu sa sang bi hmm. ngay jaxasook moom boobu mu ngi politique. waaw boobu mi ngi politique di jaxasoo tubaab bi. mais gars yi politique système. waaw xam nga boo demee ci tubaab bi nee nañ Cheikh Ibrahima ku ko gënoon réewum xel gisuñu ko. bi waaw. te jamono yéen jàppee ko nag ah. ab dof te fii booy wax dañ naan la ñeen ña dañ naan la Cheikh Ibrahima ab dof la woon ah. maam ñoom ñu koy wax seen maam sax Cheikh Ibrahima lañ gën a wér. wallaahi. tubaab Cheikh Ibrahima xel la amoon tubaab ku dem ba ne kii kuréyum xel la. <laughs> yow yaay kan te ak tubaab fi xel mi toll. Ah. Baye Cheikh Ndiaye daa bàyyi nee na mag ñi tubaab yi dañ daan ñëw vacances ci Njaaréem. bi Cheikh Ibrahima jugee Ndar ñëw Njaaréem dañ fa daan ñëw di ko fekk ci vacances di jugee France de vacances si naan ko yow képp tax ñu ñëw Sénégal ndax ku mel ne yow ci xam-xam mos ñu koo gis xam nga te ñooñ du ñu ay jullit waaye mi ngi leen di jaral ci xel kooku nag la Sénégal réeré xoolal bërki démb duudu euh, kii duudu maane mhm. dafa bind livre tudd euh, livre bu bind Cheikh bi la keroog biñ tasee euh, fee maa ngi ziar bu baax sama mag mhm. di sama kilifa mhm. sëriñ Mamadou Ndaw baay Fall nga xam ne moom tool bi daanaka moo ciy jëwriñ ji fi ne nii biñ biñ demee tu fële benn télé mu wax ne livre bi tubaab bi am na ci réew tubaab moo xam ne am na ci benn foo xam ne tubaab bi moom la ñuy jàngale muy livre Cheikh Ibra bi xam nga Cheikh Ibra ndax sax day waxee ci xam-xam yow mi nga xam ne doo jullit sax mën ngaa jëriñu ci yow ci waxe Cheikh Ibra dégg nga loolu kenn xamul lu doon xam nga maam Cheikh ba ba mu ne ah doom mu jug jamono su ngeen defoon ne man doom du ngeen sonn ñu ne ko faal noo def hmm. mu ne doom damaa nangoo liggéey loolu te néew bëgg-bëgg ne day Ousmane day yeewu 11 <laughs> ah, xam nga gis neeri <laughs> xam nga nangoo liggéey. néew bëgg-bëgg. Hmm, jamono ku sàkkoo loolu jamono ji moom. waaw ku saxoo ci loolu. dégg nga eh, déglu njàngaleem bi de. ndaw lu bëgg a dem. Ah. digul Seex Ibra. maam si ne ah doom mujj gi jamono doom ndaw ñi dañuy bëgg wërsëgu sawum gileem a ah, doom nañuy soxla wërsëgu sawum giléem ñu ne ko waaw ah, Fall doom luy wërsëgu sawum gileem mu ne doom gileem day bu tàmbalee bay saw da nga naan waaw gileem gi moom li muy kii bëri na de nee na mu jeg mel ni da koo dégg ne tekk ah. nee nag bañ ne waaw gileem gi moom xanaa dootut gi nag ne nee na mu tàmbale waat nee na wërsëg bu demee noonu ci ndaw dana gudd fan dana fi yàgg waaye ñu ne yuréet moom pëng rek ah. foog ngay am nànk nànk maam seex ba muy wax ci gaal yi daa toog ba yàgg mu ne a doom ah doom gis naa doom bàmmeelu ndaw yu bëri yoo xam ne gis nga waaw livre baa maanaam sawaay euh, maanaam sawaay mi moom euh, dafa gaaw livre baa ngi nii mii ah, naa neexal ah livre baa ngi nii euh, Doudou Mané moo ko def te lépp li mu ko bindee mooy tes Cheikh Ibra Fall yi muy jëlee ci ñoom membre di ko dajale la bind français tubaab bi di ci jariñu Allahu akbar ah, mu ne ah doom mu ne ah doom gis naa doom mi lu bari doom ci biir géej mm-hmm. maam Cheikh ba mu koy wax ah. booba gaa yi wax guñ ak Barça de gars yi xaalis la ñuy wut de wuti yàlla maam si naa doom gis naa doom bàmmeel yu bëri doom ci biir géej gi te toppub dërëm moo leen ko yóbbi waxul wuti dërëm de topp dërëm topp nag da ngay dem rek xamoo fu mu nekk waaw bu dee xam ne lii mu ngi fii waaye da ngay topp rek xam nga gars yi nañ barsa ak barsa xam nga kon Cheikh Ibra bi muy wax lii kon gars yi war nañ koo jàngat kon Cheikh Ibra waxam danaa doom su ngeen doon yaaram doom lépp lu ma waxati da koy bind saa wax ca kanam dana am réew mi njariñ lool nekk ndar di politique nag jaxasoo tubaab bi hmm. jaxasoo moom booba si suñ tubaa ngi gabon waaye tubaab yi ñu ngi dëkkal xelu taalibe yi ne leen borom tubaa faatu na booba si suñ tubaa mi ngi gabon même ñe mais ñenn ñi kenn xamul nag fu borom tubaa ndax juróomi at yu njëkk xamuñu fu fu suñ tubaa nekk maam Seex moom booba mi ngi jaxasoo tubaab bi di politique dem ba tubaab bi ñëw ne ko faal nag damaa soxla meerim ndar bi waaw damaa soxla meerim ndar bi soo ma dimbalee ba ma gañe ko danaa fexe ba lijjanti ba xam fan la sa sang ba nekk ma bind la ko leetar wax la ko. allahu te yooyu jamono gaa yi jàpp nañ ko ni ku tedd kii. néewtu fi ñu bëri gëmoon nañ ko waaye Cheikh Ibrahima gëm-gëm bi mu amoon mooy borom tubaab moom du ko fay des day ñëw. léegi nag moo ne kon yow tubaab bi yow danaa la jàppale ko ndax dangaa wax sama bëgg-bëgg. Hmm. te koo def bëgg-bëgg mu def sa bëgg-bëgg. waaw da koo waaw te booba tubaab baa ngi xëccoo meeram ndar bi de di politique. Hmm. maam Cheikh jër ku ñuy wax Mor Fall Fëri. Ah. boole ko tubaab bi ñuy campagne ci ndar. Eh mu campagne campagne tubaab bi. waaw muy campagne ci ndar Cheikh Ibrahima Fall jël alal te financé tubaab bi. eh waay. xam nga nag suñu suñu Seydou Cheikh Ibrahima milliardaire la woon. waaw. ca ndar. 52 hmm. boutiques la fa amoon. 52 52 boutiques la amoon ca ndar. amoon na taalibe boo xam ne daan dem Mali daan jëndi daakaane maam Cheikh daan ko tasaare di ko détaillé di ko jaay tubaab bi commerce. noonu rek boo gisee mëtoo la wàdd muy wayjuru Ablaye Wàdd mii Cheikh Ibrahima ko njëkk a jëndal machine ca ndar muy ñaw. Ah. lii nag si Abdoulaye nag sëñ Mour gis naa toj nga man li xam nga xam nga Cheikh Ibra ku ko dàqal liggéey amul di booba boor bi mi ngi ndax léegi gars yi ku ma jaar rek ñu joxe ña la Cheikh Ibra xoola ku ñuy wax Baye Ibrahima Ndiaye ah. day siyaar yi Cheikh jaar ci marché bi màjjal xaalis ak ay matt ginaar bi ñëwee ñu ne ko Cheikh Ibra Fall dafa fattu ubbeegut Baye Ibrahima nee na mën a rëpp ci bunt bi de xaar bu Cheikh Ibra Fall ci géer rek mu njëkk a dem nuyoo nee na ak ginaar yeeg kii nee na bi Cheikh Ibra Fall tijjee teg siège bi rek mu raam ñëw nuyoo ko addee ji xëcc mbubbum ginaar euh, mbubbu euh, ginaar gi xëcc saa koy jox ko maam seen dañu ko ah doom Ibrahima mu ne ko Fall mu ne doom foo jëlee lii mu ne ko ah lii de dama ko doon doon yalwaat hmm. mu ne ko ah, doom loo doon wax mu ne ko damay wax kuy joxe waaye yàlla ji ma yóbbu maam seen ah doom xalaas doom ah doom li lépp doom yaa doon wax kuy joxe waaye yàlla ñu lay jox mu ne ko waaw Fall mu ne ah doom waa ëllëg bu ñuy dafa yee ko yow doom fooy fay ko ah. ah doom ma ne liggéey leen liggéey wóor kat ah doom liggéey leen liggéey wóor kat Cheikh Ibrahima liggéey gars yi. 52 boutiques laa la amoon na ko biir ndax. mooy juróom fukki boutique ak ñaar. Ah, ak ñaar. te bi mu fii bàyyi ko xoolal te bi mu fii bàyyi ko 450 la fi bàyyi. ah waaw. 450 boutiques 450 francs. 450 francs la fi bàyyi. ana ana te Cheikh Ibra Fall. Eh, maanaam bu boo daan lim boo boo daan lim maanaam ñu ëpp xaalis ci Sénégal da nga ko ca daan boole moom. moom Cheikh Ibrahima Fall. waaw te bi mu fiy jógee 450 sax ci ca bis ba la fa ñëw. waaw akbar lu ñëw mu jox Cheikhul Khadim. lu ñëw bi muy dem sax Cheikh Moussa Fall da Cheikh Moussa Mbacke da ne bu fay dara des. Oh. lépp nañ ko daj yóbbul ko Cheikh Moussa Mbacke. daj lal yaag. alal jag yëpp ñu yóbbu si Moussa Mbacke ñu dem ba muy wax a tàgg tox amoon naa yéen ñu dugg ci seexul euh, maanaam doom yi euh, euh, waaw waaw waaw waaye temps waaye nag bu yoon wa jeexul wax sul du jeex wala nga ñëwaat waaw eh, dégg nga de dégg nga de mm-hmm. xam nga mm-hmm. nee na maam Cheikh daa ñaa a doom Baye Cheikh Kane ci pooju baay Cheikh Kane la Cheikh Ibra Fall wàcc bi liggéey le 2 juin 1930 ca Njaaréem Cheikh du Fane maa ngi toog mu ne ah doom lu fi des ñu ne ko 450 day moo fi ñëw diw ko fi indi diw fi indi nangam diw fi indi nangam ba muy 450 mu ne ah doom doom doom jàmbaar lañ de ndax ëllëg yomal xeexam dañañ fay wax bàyyi jëf loolu Cheikh Moudou Fane mujjee wax ci làmmiñam xoolal maam Cheikh nekk biir Ndar de ko campagne booleel tubaab bi moo faal fëri ñuy campagne mu financé tubaab bi tubaab bi dem ba yàgg ñëwaat ci Cheikh Ibrahima Fall ne ko yow daal ki nga ma booleel dafa déggu ah. nag ma Fall campagne nag faaw ma ànd ku dégg tubaab maam Cheikh a doom a doom Mor Faari dégg naa mooy làkk waaye doom xaw xaw ma lu muy wax ñu woo Mor Faari Fari boolewaat ko tubaab bi muy Mor Faari ak Mor Faal Debbo ñu ànd ak kii di làkk kii ànd ak moom ñuy campagne ci biir na waaye tubaab bi xam naa gëmul ne Cheikh Ibra mën na koo dimbali mu ñëwaat ne waa Cheikh Ibra campagne mbooloo koy def nag te yow ñaar képp nga ma boo sama mbooloo mi doo ci jox maam seen ne ko yow demal rek bu la waa ndar wóotelut xobi garab yi ci ndar yépp laay def ay carte allahu akbar te noonu la ko defee ndar kenn wóotelu ko te tamoo gañe carte ga na siñ saar yu defoon Ablaye Wade waaw baatin na ca waaw waa ndar kenn wóotelu ko te moo gañe moom tubaab bi léegi nag waaw mu lijjanti nag kon kayit yi lijjanti ba xam ne si suñ tubaa ngi gabon bind ko leetar nànk ne ko sa sang ba nag ma nga gabon gannaaw defal nga li ma bëgg kon la ma warloog yow danaa ko def sa sang baa ngi nii mi ngi gabon këyit yaa ngi nii maam Cheikh nag xam ne kon borom Tuubaa mi ngi gabon mu yónnee fa mu bind leetar moom Cheikh Ibra yónnee ko gabon maam eh, eh, Sëñ Tuubaa jot ca leetar ba ca gabon tontuwaat Cheikh Ibra Fall jox ko ku ñu wax Ablaye Ndour booba ci gaal yi lay liggéey diggante gabon ak ndar xam nga mm-hmm. Ablaye Ndour eh, Sëñ Tuubaa ne ko ndax xam nga sama taalib bi ñuy wax Ibra Fall ca ndar mu ne ko maa ngi koy dégg mu ne ko boo demee nga joxal ma ko leetar bi karoog bi Ablaye Ndour ñëwee ci kër gi jox Cheikh bi Fall lettre borom Touba bi ne ko borom Touba moo la ko jox karoog maam Cheikh dafa bëgg. na na waaw da daal di jël lettre bi ndeysaan moom lu ñu ko mësaan jox ngir borom Touba da koy fonk maam Cheikh wootu woolu Cheikh Atoumane Diop. Hmm. sëñ mut gay banna hmm. sëñ bay sekk hmm. ak sëñ mut gay maaro ay mag lañoo ñoo xam Cheikh Ibra daan ñoom ay taalibeem lañ maam Cheikh liir lettre bi jox Cheikh jóob Diop Cheikh liir jox sëñ mut gay banna sëñ Mat Gueye baan na liir jox sëñ Mbay Seck sëñ Mbay sekk moom bi mu liiree xam naa xër jàpp ko rek mu wann leetar bi moom seex ko wann ko maam seen ne ko ah doom Mbay sekk leetarub sëñ Bàmba bi doom paree ma ci sëñ Mbay Seck ñaari fan la ca teg moom mu faatu moom ah, la wan daa diis waaw moom <laughs> daa diis Cheikh Ibra woolu ku ñu wax Ablaye Ndour boole leen ak tubaab bi ak sëñ Fallou Fall ñu yóbbul sëñ Tubaa Gabon addiya Hmm. Baye Moussa Ka ne ko sa ndaw da daan dem ba Gabon. wallaahi. di yóbbu saako yorom. Hmm. di yëg ca gaal yi yori bong doo denc lëf ba muy max. wallaahi dëgg la. maam Cheikh nekk ci politique bi di lijjant di sañe kayit yi di fréquenté ak tubaab bi di dem ci ñoom ñuy waxtaan ci dem na ba tubaab bi sax tudde ko doom ci ndar. ci mën a politique am. waaw tubaab bi tudde nañ ko doom. ci politique bi mu daan def ak ñoom di jaxasoo ak ñoom. daan dem di fréquenté sax sax ci ñoom. xam nga. fii nii moom fii nii expérience Cheikh Ibra Fall moom nañ ko waxtaan tey sax plateau expérience bi mu am ba fexe bay lijjanti ba sañ kayit yi si suñ tubaa jóge fee mu sañ suñ tubaa jóge fee mu sañ ba nit ñibbisee keroog ci port bi keroog ba ko ma tabaram mbaay di teertu ah, wàcc boobu waaw nan ko Balla ak Maram ah. moom borom tubaa ah. moom mi tukki woon ba ñëw indaali sérité bi ma tabaram mbaay nekk ci poor boobu di liggéey mais xam na ne tey la borom tubaa tey di ñëw te nee na dañ maa embauché te su ma demee ñu dàq ma te ñàkk ba ñu bëgguma fekke ñàkk fekke tertu borom tubaab bi moom Matabara Mbaye moo tax ñi sant Mbaye ñaar da euh, mat nañoo bàyyi xel de wallaay ñi sant Mbaye keroog bi borom Touba ne tëll ci gaal gi rek ma Matabara ah. Mbaye daa da wër ko ne ko Balla ak Mara ay saak Sadio maam Diarra Bousso aw dikke Camara Ndumbe daara ji eh, daara maam asa soxna wala soxna jaar borom Touba daa ñu ana koy wax loolu ñu mu ne ko man la ma tabara mbaay damaa nekk fii di liggéey ñu may embauché waaye xam naa na su ma delloo moom ñu dàq ma nag waaye ñu dàq ma moom baax na naa fekk rek sa tertu bi si Sëñ Tuubaa ne ko ana Seex Anta mu ne ko Mbàkke mu ne neexal leen ko xam nga ku Sëñ Tuubaa seexanta neexal leen ko moom daa daa daa bëgg nga riis nag xoolal karoog maam Seex Anta karoog baatare lay def ma tabara mbaay moo tax ma wax fee temps yee neneen baatare gars yi mënuñu ko de maam Seex Anta ba muy baatare ma tabara mbaay yi yoruñu xaalis sax yoruñu ko waaw kon kon da gis ne li waral tukki ñibbisi bi Cheikh Ibra ko liggéey kon moo tax mu ne ah doom ku am doom na ma sant waaye nag doom ku ñàkk doom na ma xalaat ndax doom lépp man la ma maam Cheikh nee na ah doom ku jariñu ci borom Tuubaa doom nag ma sant ni mu daan xàmmee doomi borom tubaay ku masaane ñëw ni ko doom borom Tuubaa danaan ko ces teg ci pooj bi daa ah, doom dis na gann doom doomi Sëñ Bàmba oh, ndeysaan nee na ah, am na ci menn mag moo xam ne am na ci tuut tànk boo xam ne ñenn ñi dañ ne ko demal neel Cheikh Ibra dafa bëgg borom Tuubaa ba boo nee ko doomi Sëñ Bàmba laa dalaa dalay neexal nee na xam naa nag moom rek mu am fit rek ñëw rek dañ ne ko waaw man day Fall Sëñ Bàmba mooy sama baay maam sa ne ko ces teg ko ci pooj bi ne ko ah doom woyof nga de doom xanaa di wéy sa baay Ah, allahu akbar ah, tamit xam nga lii. ñoom naan xàmmee doomi borom Dubaay moo gën a daa nga ñu ngi buntu bi ah, xam nga euh, waxtu waa ngay xaj. ci uh-huh. jeex. Uh-huh. Euh, doyaluñu. doyaloo waaye li première partie bi la. Uh-huh. fi làpp du ñàkk incha allah euh, bulus ñu ko jot may bu ñëwee Touba. incha allah daañu yeggali fi ñu toll. naka la daan xàmmee bindal ma la daan xàmmee doomu Cheikh Khadim. fi ñu tëjee ak yow. mooy war may Touba. waaw foofu moom bëgg naa nga taxaw ci. waaw leeral la lañ ca tere. waaw ba murit bu ko dégg mën koo bàyyi laataa moo dem. macha allah te waa ku ku murit ci ba nga dem ñi nga xam ñoom lañ ko dénk buñ lay euh, teg ca yoon na nga nangu. te xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mhm. moom fi toogal Cheikhul Khadim mhm. tam lu mu wax sëñ Touba wax mhm. ku sëñ Touba bu fi newoon ci jamono ku mu digal nga def su Mountakha digal war ngaa def su Mountakha jël digal li nag jox ko nag xalifa bi waaw koy jërëjëf sëñ Ousmane jërëjëf ci laaj bi nga am solo laaj bi nga laaj am na solo. ndax ja mat naa leeral ñu ngi ci wàccaay yu fi ne nii. ñi war nañoo xam tere ya ndax borom dëkk. tere ay tere moom. dëgg yàlla ku ne war naa jaar ca tere ya. te nag lim tere rek la lislaam tere te war a génn. Euh, Sénégal jëm Touba. jëm Touba. Mhm. xam nga. te moo tax ci colin gi ci lay njëkke col gu raflet gi ñoo ngi ko fay tere moo xam ci jigéen ñi ak ci góor ñi. waaw wateef yi it sëriñ bi mu ngi koy tere. yenn wateef fii waaw takk maanaam daal maam góor goo xam ne da ngay nuru jigéen daal moom ñu ngi koy tere moom mooy moom nag ay takk ay chaîne nag waaw watu ay kii rek yooyu noonu yëpp daal sëriñ ma nga fay tere ngir ñu maal dëkk bi waaw ay kab yeeg euh, kiris ak takk chaîne ak xonqal tuñ ak yëpp yokk karaw yokk karaw ak yëpp ñu ngi ko fay tere moo xam jigéen juy leetu mees ak sol sipp buñ fant ak yëpp a ci yem moo xam fant ba dañ koo tegaleeg yëpp a ci yem bu mu ñëw waaw sëriñ bi da ko fay tere ah, kon tere yi nag na ci nit ñu ñi góorgóorlu te fonk solin wi xam nga colu murit dafa am solo de surtout surtout surtout nag loolu nag dooguma la mais solug mu gu rafet gi tax àll sekk xet na couture waaw indi laxasaay yu rafet yoo xam ni xam nga sëñ bi lii dara dàq ko ah te mu ngi ci promo goo xam ne lu naan jaayee dix mille cinq mille la koy jaayee ok oh. euh, kon xam nga euh, kon kii moom kon moom yombalal na ko wallaay xam nga hmm. te colinu murit bàyyi sini sekk nee na hmm. damaa sol colinu murit waaw takk sama maxtu romb Seex la déglul waxi Seex Ibra ji nag nga xam ne colinu murit lu am solo la hmm. nee na maam Cheikh nee na dama xool ba yàgg naa ah doom sii ni mu ne ko faal mu ne doom ndax murit nga mu ne ko waaw faal mu ne ah doom cey siñ bàmba ah doom xanaa xamu leen ni doom ëllëg yomal xiyaam doom nuri gu murit la ñuy a fay soog a fay ak murit ëllëg yomal xiyaam nuri gu murit a fay nuru ak murit rek comme ni nga soloon nii rek ñu ne si si Ousmane mi col murit la fay mu moom la solo ëllëg yomal xiyaam dañ lay fay ci col gi ba pare soog laa fay ci sa ci sa ngay jëf moo tax kon coli murit gi col gi col gu rafle gi nañ koy wàññi waaw suñ tubaa it am na ko mas a ñëw jàkkaarloog moom sol xam naa yére yu xat. suñ tubaa ne ko yow day saa su ma la xoolee sama bët bi ca ña ma yóbbu woon ca géej ga képp la may jox. nee na mag mi daal di yuux rek daal di xotti yére bi. Ah. ne ko mbàkke waxal noo bëgg ñu koy defee. keroog suñ tubaa xel maam ne la jël. Hmm. nee na di rëdd nee na ci suuf si kuppati baat yëkkati loxo bi terrain. nee na lim nee na lim bind daal muy turki bu mag. ba mu dimee ca marché ba noonu la fekk ñu koy jaayee lu mel noonu. allahu akbar comme ni mu sol nii rek waaw waaw waaw ni ko. ay àll xam <laughs> waaw kon col gi it. ñoo ngi koy bàyyiloo xel nit ñi. Mhm. Ah, ñu gën a sàmmonteeg worma yi. Mhm. gën a xam ne Baay Faal yi moom fitnaaluñ kenn. waaw ndigalu suñ suñ Tuubaa rek la ñuy jëfee. Mhm. te nag damay wax ne. ndigal suñ Tuubaa moom waxtu wu duggee kër Cheikh Ibra Fall. ak lu mën a doon. donte day ah. métti dañ koy jëfee moom. wallaahi wallaahi lu leen cay fekk nag da leen cay fekk moom. maanaam li waroon affaire yi xaw a kii sax mooy. ndigal li. daam ñu ko dénkoon ñu nekkoon ceeg yooyu mais fi mu dugg nii. waaw bàyyi faal yi ba gis ah, loxo yi mu ne. baax na lu Sëñ Tuubaa bëgg bëgg moo taxaw ba bisu pénc te du daanu Cheikh Ibra Fall la koy sax. ndax xam nga li tax. mooy daa xam pas-pasam. wallaahi yoonam ba mu sosoo ba léegi. Hmm. lu ñu waaye bëgg mu taxaw. Hmm. ba bis penc da doon raaf. Hmm. Cheikh Ibra Fall lañ koy sant ak waa këram. ngeen xam nañ ne seen pas-pas. Hmm. te ñoom seen euh, Sëñ Tuubaa moo leen gënal si seen bakk. wallaahi wallaahi xam nga xam nga Cheikh Ibra Fall dana woon ah doom ah doom ëllëg yomal xiyaam doom bu ñu ne woon naxee mbaay man képpay ñàkk. waaw kontaan naa ñu sama xol sedd na. sëñ Matar démb dama laa mayoon moom laa récupéré tey moo xam nga. wala euh, euh, maa ngi tuub Go Parfum dañoo tase TFM mu jox ma parfum bu neex. Ah, Go Parfum. Eh, jàmbaar la ci jàmbaar chef de carré bi la boo chef de carré ma ko ñaanal ci parfum yi muy wër àdduna. maa ngi koy siyaare waaw. dinaa la boole ak moom mu lay jox ci parfum yi waaw ndax moom baax na ci daal. kontaan nañu tarkal la. bu baax. dëgg yàlla ci diggante bi xat na ndeysaan mhm. wallaay waaye yéen ay soldaaru sëriñ bi ngeen ndeysaan wallaay barke Cheikh Rafaan ñu ngi ñaan suñu la mag yi mu gën a yaatu lool amiin wallaay ko mboolem taalibi yëpp waaye Cheikh ñu ngi lay sant bu baax yow it waxtaan wi am na solo waaw ñu ngi sant ñëpp di nuyu sama gars yi ma àndal sëñ Mbacke Yaali mhm. dëkk ba Touba sëñ Moustapha Diop moom ñoo bokkoon nekk Poroxaan suñu mag ak sëñ aale mii nga xam ne moom sama goro la mhm. sëriñ bi boole ñu ngi sant waaye nag ñu ngi sant Euh, sëñ Bas Poroxaan. moom doomu sëñ Moustapha Bassirou mooy suñu sëriñ. Poroxaan lañ yaroo. waaw di sant soxna yéen ci kër gi yëpp. waaw soxnaa mi Mbàkke soxna Roqe soxna Musli bàyyiwuñu kenn. waaye di sant Baye Moussa Kalaamu la. Mhm, maanaam li mu def nii dafa rafet. yàlla xam na ni oto bi nga xam ne moo ma indi. Mhm. barke sëñ tubaab moo dem ba ci garage 65 bi. jël ko yëkkati àddiyam jox ko ne ko yóbbul ma ko aller retour fekk sëñ Tuubaa teraanga jooj nag sëñ Tuubaa doo nga tax ñu ngi si sant bu baax di sant sama maam ji nga xam ne moom laa nekk meer mhm. maire Ndeye Ndiaye mhm. ak mboolem waa kër gi yëpp waaw di ziare ñëpp bàyyiwuñu kenn daa xat buñ buggee ci kii rek du ñàkk boo ñëw xibaar ñu jàkkaarloo incha allah kii rek yàpp ko mbaa gën a yaatu incha allah nañu maam lam ngi sant ñëpp bari sëñ Ablaye Ndaw sama di nuyu tamit Xaadim ma ca Poroxaan Xaadim Diouf ñu koy ndokkee moom man mii la ko tuddee Cheikh Massamba dégg naa mbaaxam taaw man mii la ko tuddee. muy maam Seex. yàlla def mag. macha allah man daal yow laa bëgg yow laa bëgg a laal dégg naa mbaaxam gi. jërëjëf sëñ Ablaye kontaan nañu. ok sant nañu ñàkk par yàlla. suñ Moodu gisee. Mhm, waaw Ismaïla ak Mbala Avaye boo ma ko mënee indil ah, laataa muy tàggatoo. incha allah bisam bi wala ñu ngi koy siyaare baax di siyaare daal mboolem waa kër Baye Cheikh Ndaw gépp nag mhm. ah, di ñaan sa sa borom sunu sunu kilifa ya fa nekk mm-hmm. saa borom guddal seen fan nga ziare baax suñu Aliou Ndaw di suñu xalifa mm-hmm. si sëñ Ablaye mii nga tudd ndeysaan moom sama mag la ñoo bokk ndey ak baay mm-hmm. ak ma sëñ Mamour Ndaw Baye Fall ak mbooleem waa Ndakaaru gépp nag fii nii su ma limee rek damay dugg ci problème bi ndax damay bàyyi moo tax waaye daal murid yi ñu topp yëpp rek ngeen xam ne jotaay bee hmm. waaye amoon nañ tudd ñëpp rek murid na képp ku nekk Ndakaaru te du ñu bëggee ñu ngi lay siyaare te di ñaan jàmmi Cheikh Ibra Fall wàcc sa kaw bëgg hmm. nañu lool sëriñ Mamour sëriñ Mamour sëriñ Mamour laa koy wax sëriñ Cheikh Ndaw lay lan tubarkàlla gis ngeen li na ci ginnaaw sama ginnaaw hmm. di journée spéciale journée religieuse sociale sant maam Marcel Achary Toarkalla ànd ceeg jàmbaaru Serigne Cheikh Ibrahima Fall bi waaye ànd ceeg jàmbaaru Serif Tilala Fall bi Serigne Modou Guissé moom Cheikh Ibrahima Fall di am nag samedi 2 décembre 2020 2024 fële ca fii 2023 fii ci Parcelles Assainies ñu ngi ci woo ñëpp euh, bi lay amee incha allah sëñ mu ngi lay ñu ngi la ci woo baax a baax di ci woo mbooleem képp kuy Baye Fall mbooleem képp ku ashhadu an laa ilaaha illallaah mbooleem waa kër moom ñu ngi ci woo ñëpp tarkal moom Fall sonn loolu ci émission bi Tarkalla waroon naa ñu sax bokk ci émission bi Tarkalla. ndeysaan ah loolu mu faaw fekkee ko ndeysaan Tarkalla ndekk yooyu maa ngi ca sëñ Modou incha allah Tarkalla ñu ngi koy dokkee baax baax suñu chef de quartier koñ ba di Ibrahima Sène tey dafa noppalu Tarkalla moo la ñu waroon ubbee Tarkalla ñu ngi koy jaay baax mu nekkoon jàmbaar euh, joo xam ni Euh, euh, lu xew ca koñ ba sëñ Ibrahima seen mu ngi lu xew ca koñ ba mu taxaw ca ba ma tàntalee yonent bi ba ki démb daa def délégation ñëw jox in ma xewal gu bëri comme maa ngi koy jaale waa Cité Jubóo yëpp di ko jaale waa daayira di ko jaale la woon lu bu dee bi sama maam génne àddina moo fa jiitu bi sama baay Cheikh Xadar Mbaye génne àddina moo fi taxawaay am solo toirkal lépp lu xew Cité ko jaale képp ku sant ci seen gépp ñu leen koy jaale bu ma jëlee jàppale sëñ Mor Diouf mi jëwriñu waa daara bi yëpp rek dina yóbbaale ñëpp tàkkal la ñu ngi ñaan yàlla saa borom jégal ko ci wé bàkki safar gi nga xam ne mën a jub yal na yàlla jégal ko taxar añan ci bàkki Cheikh Khadim te moom laa tëjee du mu nuyu kenn xanaa àlasek mi ma ci la 209 06 49 77 la war a waxtaane incha allah moo ci ànd ak euh, maa ngi tudd baax resi euh, Moodu Murid Mbay incha allah